أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق قمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكو يني بوكو دجلو في سان ci سفينة rajo 98.2 FM ci seen émission miftaahul huda ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di nuyu ci gën gaa di nuyu di leen ziyaara waaye di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala di bokk ñun ñëpp àndandoo sant yàlla subhanahu wa taala ci ñaan giñ ko ñaanoon te may ñu ko ci coobareem mooy ñu ñaanoon ko mu may ñu fekke waa dajuma ji mu may ñu ko subhanahu wa taala ci coobareem ñu koy ñaanaat di talat tàllalaat suñuy loxo di ñaan mu may ñu wat aljuma yi di ñew ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziyara mbolam ñi nga xamni ñi nga andek ñun ci fi ci sen radio safina fm di radio bi nga xamni di defar penci mi defar jikko yi defar nit ba mu nité moko ko dini, a dundal diine contribuer ci mission wu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waaye di jiital ci nuyoo yi ak ziyaara yi suñu kilifay diine yi di leen nuyu di leen ziyaara bu baax a baax jiital ci suñu xalif général sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour moom it ñu nuyu ko ziyaar ko waaye ndokkeelaat ko ci weeru Seyduna Muhammad bi ñu nekk di weeru gàmm waaye ñu ndokkeel ko it ci ajjuma ji moom it ñu ñaanal ko yàlla li nga xam ni moom la yàlla teg ci loxoom di mission wu mag ñi te mission wu mag ñi suñ ko waxee mission wu Seydina Muhammad la parce que mag ñi nekk luñ lu dul la yonent bi sallallahu alayhi tracé woon ñu fexe ba mu gën a wér ba mu gën a biir ba ndaw ñi nga xam ni fekke wuñu ko mu mel ni fekke woon nañu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ndokkeel ko ci bu baax a baax waaye ñaanal ko yàlla moom it yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ba li mu ci yéene. ak yi mu ci naal yëpp yàlla defal ko lu sut njortam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ziar ko bu baax waaye jaar ci moom ziara mboolem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji malik yëpp jël nuyoo ak ziara yi teg ko ñu loxo bunt ci kër maam Cheikh Seydil Hadji malik di Cheikh seyd Seydi Mouhamadul Moustapha si Al Amin moom it ñu ñaanal ko yàlla ak mboolem ñi mu bokkal doonay maam Cheikh Seydil Hadji malik yàlla sàmm leen te aar leen te defal dolli leen ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nuyu suñu maam suñu sëriñ Thierno Bachir Tall Thierno Mouhamed Bachir Tall ñu nuyu ko ziyaar ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla moom it li nga xam ni moom la nësër ci diine ji nisër ko ci tariqa bi te mooy yeggale mission wu maamam ju baax ji maamam ji nga xam ni ku fi taal ci taalam nga taale te mooy maam Cheikh Omar Foutiyou Tall moom it ñu nuyu ko ziyaar ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla dolli ko wér dolli ko sutura waaye dolli ko ay may ba li mu yéene yeggali ci mission bi yàlla defal ko lu sut njortam ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël nuyoo yooyu nga xam ni moom la nuyu mboolem njabootu maam Cheikh Omar teg ko si suñu loxo sang suñu sëriñ di Thierno Hamidou Yoroban moom it ñu nuyu ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla ba naal yi mu naal ci liggéeyal diine parce que liggéeyal diine rek moo ko ñor ci réew mii di Sénégal ak feneen fu dul Sénégal yàlla na ko yàlla mottalil te dolli ko ci ay ndam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jullit ñëpp ko war a ñaanal ndax koo xam ne li nga am ak li nga mën doyoo ko lu dul jariñ ko askan wi jariñ ko réew mi jariñ ko diine ji jariñ ko tarixa bi kooku ku diine ñor war nga ko ñaanal kon yàlla na ko yàlla taxawu ci biir taxawu ko ci biti ci barki yonent bi nuyu eh, ci personnelu rajo bi yépp teg ko ci loxo suñu directrice bu baax bi di soxna ñu maba momit ñu ñaanal ko yalla yalla na ko yàlla sàmm nuyu suñu eh, technicien bu am solo bi nga xamni tay fa tabarakallah sa su nekk mooy toog jàkkaarloog ñun xaji xaaj samba ci liggey bu rafet bu am solo bi nga xamni ni tax ngeen koy mëna am fo leen mëna nek ci rew mi su ko defé ñu nuyu ko ziar ko bu baax baax nuyu mbolam dawair ba nga xam ni yaa ngi ànd ak ñun ci seen émission Miftahoul Houda jiital si waa dairatul muxtafina bi athari abay wal ajdad ñuy ñoom Baye Alxaj Maguette Baye Alxaj Masilla nuyu leen ziar leen bu baax a baax ak mboolem rek ñi nga xam ni saa su nekk ñi ngi ànd ak ñun seen émission Miftahoul Houda tey nag fa tabarakallahu te noonu la ñuy nuyoo nag suñu daaira bopp di safina safinatu saada ñu nuyu leen ziar leen bu baax a baax nuyu mboolem fu membre Safina nekk rek ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ci ajuma ji di ñaan yàlla daal mission bi nga xam ni moom la ànd ak mag ñi yal na yàlla jàppandal yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni seen émission Miftaahul Huda day jëllu si rek ci lancé bi nga xam ni moom la nekkoon mooy saa su nekk di jëmmal di taxawal liggéeyu mag ñi ndax xam nañ ñi mag ñi seen liggéey du woon lenn lu dul liggéeyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nekkaat tamit ci weeru gàmm waaye tey ñu ànd seek suñu soppe suñu sëriñ di suñu ustaas di alxaaji Malick Mbay bolle ñu moom it ñu nuyu ko ziar ko bu baax moom la ñu fas yéene ànd ak ci suñu émission tey fas yéene waxtaan ak moom ci ay point yu ama am solo ci ay waxtaan yu mucc ndax moom ku ko xam rek xam ni Haj Malik yarkat la Haj Malik jàngalekatu Alquran la Haj Malik tàggkatu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk kenn yi ci défenseuru tariqa bi kon moom la ñuy àndal ci ci suñu émission tey incha allah na ko ñëpp bàyyi xel nuyu ñi nga xam ni ñoom it ñoom ñëpp ñi ngi ànd ñun ci Facebook bi di ñu suivre en direct ndax tax nañ ñi nekk sax bitim réew ñi ngi ànd ak ñun saa su nekk ci seen émission ñu nuyu xaaju Ousseynou li bu baax baax bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al Amin ñu nuyu ko ziar ko bu baax ziar wala waa al ajdad yëpp nga xam ni ñoom it saa su nekk ñi ngi ànd ak ñun ci seen émission mifta Miftahoul huda Haj Daouda Ndiaye bu sëriñ Abdoul Aziz Sy alamin Amin nekk fële ca Mbour moom it ñi ngi ànd ak ñun émission bi ñu nuyu ko ziar ko bu baax ba Saliou Gassama moom it ñu nuyu ko bu baax baax ziar ko moom it mi ngi ànd ak ñun ci émission bi fa tabaarakallahu xamna non lañuy continuer rek bàyyi alxaj malik bay mu nuyo ak auditeur yi ak auditrice yi ñu dogo delu ci wat nak ak mom ci waxtaan bi nga xamne ne moom la ñu war waxtaan waaye ñu fatali rek nuyu bu baax oustaz pam mahtar Sylla nga xamne moy borom émission bi tay ma nga fële ca fi ñuy waxee ak ñun mi ngi fa rawdu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci fez waye andak suñu président di président Miftahul Huda di haj mohammed Sall fa tabarakallahu du ñak legi rek dañu jokk ak ñom parce que ñu ngi koy seetaan léegi eh, ay élèves ak ay étudiants yu ñëwoon ci eh, biir Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane di def visite moom moo nekkoon di waxtaan ak ñoom ci kan mooy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yi ak ban taxawaay la la am ci diine ji ban taxawaay la am ci tariqa bi ak nan la jotee tariqa bi léegi nag ñu ngi koy suivre ak ñoom en direct kon fa tabarakallahu dañuy bàyyi ak oustaz Alhaji Malick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 سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضا والقبول والتمكين مبكي بيريو réew مبكي mbokki ريو مبكي سفينة اف ام 98.2 مبكي émission bi di miftaaxul huda mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki soppe yi mbokki xarit yi mbokki wóllëre yi ñoo ngi leen di boole benn baat bi ñaan la li muy ñaan ëmb jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem ñu ñaanal leen ko ñaanal ko sunu bopp ñaanal ko ku yàlla am baat ba moo di salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne ñoo ngi laa fay nuyoo ñoo ngi laa dellooy ziyaar yi di jaar ci yow di nuyu kilifa yi rajo bi jiital ci sunuy sëriñ ndax kër gi daara la bokk ci daara yi nga xam ni. njabooti tariixa bi lanu waaye sax liggéey ci tariixa bi fii ci réew mi lol lu fi waay di yëngalati ci tariixa bi ci daara ji la sosoo muy kër seexul xaaji omar fuutiyu taal radiyallahu taala anhu wa nafaana bi ñu teg nuyoo bi ci xalifa bi cerno bachiru taal waaye nuyu mbooleem ñi ci ronam Cerno hamidu ban tabaarakallahu di buntam fi ci dara ji ñoo ko nuyu momitam itam di ziyare itam borom jotay bi muy ustaaz alxaaji bab Makhtar sille diko ziyare ziyaara ca dëkk bu sel bu tedd be mu fete tay ñu diko wax dardas muy rawdu sayidi cheikh Ahmed شريف رضي الله تعالى عنه ñu di ko ñaanal yàlla mu sàmm ko zahaban wa iyaban ñaanal ko yàlla mu nangul ko ay ziyaaraatam ñaanal ko yàlla mu dolli koo tëbb dolli koo mëdd ci leeri Cheikhuna Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu ñaan yàlla mu defal nu ko ñaan yàlla mu boole ñu ci njabootam duniyan wa barzaxan wa uxra di nuyu alxaaji Mansour mboolem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel jotaay bi rawatina alxaaji Daouda Ndiaye al amin mu sëriñ Abdou Fale ca Mbuur ak mboolem soppe yi nga xam ni ñoo ngi topp waxtaan wi sëriñ Mansour Fall jërëjëf oustaz alxaaji Malick macha allah ci nuyoo bu matale boobu nuyoo bu am solo boobu ñu nuyu xaaji Mam Góor Seen moom it fa tabarakallah xaaji Babacar Diop ñoom Mamadou Diop ñoom it ñi nga ànd ak ñun seen émission waaye soxna su kamara bu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha moom it mi nga ànd ñun seen émission Miftaahul Huda Haj malik xam naa léegi incha allahu rabbi ci kanam rek daañu jokkoog oustad fa Makhtar ak président Haj Mohamed sàlli incha allahu rabbi ñi ngi jéem a jokkoog ñoom fële ñu nekk waaye demoon ci gam googu nga xam ne mi ngi am foofu ci raw rawdu Cheikh Ahmed Tidiane amoon altine bii ñu génn ba tey ñoom ñu nekk fa ci di ziara Euh, Oustaz Hadj Malick dañuy mm-hmm. jëlu si rek ci suñu waxtaanu tey mm-hmm. ginaaw bañ nayoo ñëpp ziar leen mm-hmm. ndax xam nañ la yow ci défendre mag ñi xam nañ la ci euh, siiwal liggéeyu mag ñi fii ci réew mi mag ñoo ñooñu nga xam ni damay wax ni su leen suñu réew la mën nañoo njëkk a euh, joxoñ mam Cheikh Omar yu taal ak ñeneen ñi nga xam ni ñoom ak moo ñoom ñoo bokkoon géewu diine ji dundal fi lan mo nekkon senta taxaway maka ka day jaadu ñu suñu tollo fi ñu wat ci suñu rew bala ñoo ko génn xam lan li rew mi am ci taranga ana lan moko ko may waye xam mak ñi nga xam ni mom lañu am bala ñoo naw benen mak ci minen rew ñu delu ci xam mak ñi ñu am suñu rew ñoom ñoy ñan ba pare parce que xam bi nga leen di xam ñoom ñoy ñan dina waral nga gën leena wek kon xaj malik dañuy dellu si mag ñu ñu am suñu réew parce que taranga bi réew mi am ci dal ci diine ci tariqa ci bëgg yalla ci fonk sayyiduna muhammad wu ko fenn lool ci mag ñi nga xam ñooñu ko ñooñu ko ñooñu ko baxé ndax lu nekk rek fay am sabab kon xaj malik mag ñu ñu am ci réew mi ñom ñoy ñan ak ban taxaway lañu ñu amoon ci réew mi ci diine xaj malik barakallahu alxaaji Mansour Fall jaajëfal la ci tomb bu solo boobu nga teg tey ci kaw taabal ji ngir ñu waxtaane ko te mooy mag ñi nu am ci réew mii lan lanu fi nekkee woon lu jural njariñ réew mi waaye lu jural njariñ njabooti réew mi mhm. ba tax sax tey ku dul réew mi réew mee la gën ay mag ku dul réew mi ku dul réew mi réew mee la gën ay mag mag nag buñ ko waxee ci lislaam xaj Mansour aha kenn jiituwu ci yonent yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa ña yaroo ci ronam daan ko dégg muy wax bu jëfee ñu gis ñoom it bu ñuy jëf ci kanamam muy gis bu ñuy wax ci kanamam muy dégg lu ca jar jubbanti mu jubbanti lu jar bàyyi mu wéy mu bàyyi mu wéy ñooñu ñoo jiitu ci mag yi lislaam yi waaye ku toppati seen tànk tënku ca seen lanu tënku woon yow itam ci mag ñi lañu lay tuddee donte boroom kawar gu ñuul nga ndax mag yi bu ñu leen waxee tekkiwul ay at waaye tekkiwul itam ci ñëfi jiitu waaye la muy tekki rek mooy li yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëm ci nun ka ca teg tànkam dund ko dund goo xam ni parewul pour bàyyi ko di dem ci leneen waaye parewul sax pour di ko rax di ca dolli wala di ca wàññi yokk ca lu ca bokkutoon wala mu di ca wàññi lu ca bokkoon mhm. mag ñooñu nag fii ci biir réew mi yàlla dañu cee wërsëgale ñoo xam ni wërsëgale gu ko beneen réew lu toll ne ni mu ko wërsëgalee réew mii di senegal booy tudd mag ñi fii ci senegal nag ña tegoon ci seen tànk ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon doo romb mukk Cheikhul Xaaji Omar Fuutiyu Taal radiyallahu taala anhu mhm. góor googu nga xani bi mu deetu tànk ci zahir la ko yàlla baaxe xam-xam ndax mooy jiitu nag ci ku bëgg liggéeyal diine xam-xam xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla yónnee ci pénc mi ngir mu defar pénc mi yar waa pénc mi lim ko njëkk a sant mooy iqra jàngal parce que pénc mi li koy defar mooy jàngal waa pénc mi <laughs> waaye boo jàngee ba noppi itam nga jëfandikoo la nga jàng bul yem ci xam gi rek bàyyi doyagul waaye nga jëfe la nga xam yàlla tëje wax ja gannaaw ba mu ko nee jàngal was juddu waqtarib was juddu waqtarib googu li muy firi dong mooy lee la ni woon jàng ko appliqué ko was juddu appliqué la nga iqra woon la nga jàngoon appliquer ko bul yam ci xam gi rek bàyyi boo jàngee appliquer résultat ba mooy waqtarib daa jege sa boroom jege goo xam ni di nga jubóog moom waaye itam di nga dinga nga di nga dajeeg ngërëmam mm-hmm. loolu nag la mag ñi nekkoon Cheikhul Hadj Omar Foutiyou Tall mi ci jiitu yàlla wër sëgale ko yàlla wër wërsëgale ko mu teele a géeju ci xam-xam daan na faral di wax ni mbooleem géeji sharia yi mbooleem xam-xami sharia yi mboolem téere sharia yi bu ñu leen faroon ñoom ñépp mbaa ñu tuur leen ci géej gi mbaa ñu taal ko man Cheikhul Hadji Omar mën naa ko bindaat atte bu ne dinaa ko delloowaat palaasam duma ci wàññi tomb duma ci yokk tomb mm-hmm. kon kooku ku yàlla baaxe woon la ngir mu defar pénc mi mhm. kooku nag lim fi nekke woon mhm. weesuwul jàngale mhm. weesuwul yare yee weesuwul itam yee nit ñi wan leen ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon mu ne ca mu jaral ko sori njabootam mu jaral ko tayle bakkanam mu jaral ko bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi dund ndax lan na yar nit ñi na jubbanti nit ñi na jàngal nit ñi waaye na yee nit ñi kooku fii ci biir réew mi ak fu dul biir réew mi foo tudd cheikhul Xaaji Omar al mujahidul akbar xam nañu taxawaayam xamoon nañu li ko diine jaral boo ci jàllee moom cheikhul Xaaji Omar radiallahu taala anhu bi dundam jegee jeex mu xam ni ñim tollool génération lam ca man def na ko ca lam ca mën a wax wax na ko ca ña mën a yar yar na leen ñam mën a jubbanti jàngal leen yee leen defal na leen ko waaye mu xam ni beneen génération ngi ñëw te war na caa am mos koo xam ni dana fa taxaw taxawaay bu mel ni bii mu taxaw mhm. mu tànn kenn ci génération bay ñëw koo xam ni bi koy tànn moom Seexul Xaaji Omar waxuma la gareegul jamono de waaye baayam xamanteegul ak yaayam kam tànnoon mooy Seex Seydil Xaaji Malik radiyallahu taala anhu xaaj Mansour. Uh-huh. Sidil xaaj Malick bi ko seexul xaaji Omar di cité di cité liggéeyam di cité mission di cité taxawaayam booba maam Ousmane mii baayam xamanteegul ak maam faa wadd wele mii yaayam. kon ma ma maam Cheikh Omar. moo ñu moo ñu cité citéel maam Cheikh Seydil Xaaji Malick moo xamal ñu ni li mu doon ko doxal. mission day jeex day dem waaye ki ko war mottali mi ngi ñëw jamono yu néew mook Seydil Hadji malik bokk nañu jamono ju ñuy dund waaye gisantewuñ ci zahir nijaayam ju ñuy wax maam alfahim yoro wele nijaay la ci maam seexal xaaji Malik ndax mook fa wàdd wele ñoo bokkoon lañu bokk aban bokkoon itam umman maam Seexul Xaaji Omar ay jamono dafa nekkoon gaaya Uh-huh. di borom xam-xam uh-huh. di jàngalekat di yarekat di yeete uh-huh. maam faa kolol, wele fonkoon ko lool soppoon ko lool daan ko teral yitam te xaaj Mansour labbayk borom xam-xam ku ko teral yàlla dana la wërsëgale xam-xam borom xam-xam ku ko teral yow mi ko teral yàlla dana la wërsëgale xam-xam boo échappé xam-xam yàlla dana la wërsëgale doom ju am xam-xam boo échappé loolu sa doom échappé ko yàlla dana la wërsëgal sët bu am xam-xam loolu ku jàng taalimul mutaallim bi muy wax yii maye xam-xam boole na ca del teral boroom xam-xam del teral boroom xam-xam yàlla dana la wërsëgale xam-xam mbaa doom juy boroom xam-xam mbaa sët buy boroom xam-xam Sil Hadj Malick téere boobu wayaat na ko jàngale ko mooy xantaratul murid bii ñuy nafarandoog mbokk yi ci daara yi maam Sidil Hadj Malick avant ganek jamonoom Seexul Hadj Omar nekkoon gaaya maam fa wàdd wele daan ko teral ndax mm-hmm. xam-xamam bu yekkee tibbal ko buy fóot yóbbaaleel ko kaala walla mbaxana ba Seexul Hadj Omar xamoon yitte ak cofeel gi ko maam faa wàdd wele ëmbal booba maam faa wadd wele jaar na ci ñaari buum yàlla weddi diggante ba buum gu nekk am na ca doom yàlla weddi diggante ba mu ni man daal li des ci sama dund naa jaayanteeg yàlla féete ci daara ji di taxawu waa daara ji di leen toggal ak a fóotal ak a rootal ñëw ci daara yi càmmiñam Cerno Malick Sow seen ñaari yaay ya bokk mhm. féete fa di toppatoo xale yi ci togg ak ci fóot ci root mhm. ci daara jooju la maam faa wàdd wele féete maam cheikhul xaaji omar nekk gaaya la génne benn téere bu mag ci lasraar téere ba mi ngi ko tuddee alxaaya nee nañu tuuru dëkk ba la ko tuddee ñii ni déedéet du tuuru dëkk ba waaye alxaaya rek la ko tuddee alxaaya mooy la ngay wuti la ca gën a sore gën caa jafe mu ngi ci sama téere bi ci asraar la ko def moom seexul xaaji omar gaaya googu la ko liggéeyee gannaaw gi la bàyyi koo gaaya def ajam gu siiw ga moom cheikh def fa at yam fa def bim ñibbisee nag maam fa wàdde wele ak waa gaaye dégg ni góor gi fi nekkoon mhm. ca xam-xam baak cell tega ak mën jaamu yàlla ga tàgg woon na dem fi baytullaahil xaraam ñibbisi na ba léegi ma nga oore fonde waa gaaya daal di am yéenay ziyaare ji ko ca xoore fonde ca fuuta maam faa wàdd wele amoon yéenay dem waaye mu gis ne délégation bi ñëpp ay góor lañu mhm. waaye bokk na ci biir délégation bi càmmiñam lii di alfahim yoro wele uh-huh. mu ne ko comme yaa ngi dem man jigéen laa naa leen bàyyi ngeen dem waaye nag sama yóbbante bii na ma ko yóbbul jël sër bu fonkoon lool bu valeure lool bu seer lool ca jooja jamono uh-huh. lem ko ëmb ko jox maam alfahima yoro wele ni ko nanga ma ko yóbbul xoore fonde ca sëriñ ba ni ko sama jigéen ba moo la ziyaara lii uh-huh. loola bi muy am ña nga ca gaaya ba ñuy àgg xoore fonde ña nga fa àgg àllarba ci diggante tàkkusaan ak timis ba ñu àggee gaaya ba ñu àggee fuuta diggante tàkkusaan ak timis fekk seexul xaaji omar nekk ci xalwa mhm. bi mu nekkee ci xalwa waa gaaya agsi nañ ci dëkk bi bëgg nañ koo gis mu ngi ci xalwa bi ñu am lu ñu jël ci materiel yi ñu indi woon ngir hëddiyaal ko seexul xaaji omar mhm. neexale ko bëkk néeg ba ngir mu teel yëgal sëriñ bi ni waa gaaya ñoo lay ziyaar si am itam loo xam ni ci biir marchandise mii ci biir bagage yii ci biir yóbbante yi jaayoon nañ ko ca yoon wa jëndoon ci awloo ndax ni bagaas yi daa diis ñu jënd aw awloo sëf ko yenn ci bagage yi bi ñu agsee àllarba diggante tàkkusaan ak timis gisuñu seexul xaaji omar alxamis gisuñu cheikhul xaaji omar ba aljuma comme nii ci yor yor cheikhul xaaji omar génnee ca xalwa ba ni tëll ni ana waa gaaya ñu jóg taxaw ku ne jox ko loxo nuyoog moom daal di àgg suuf mi ngi taxaw moom cheikhul omar daldi ni alpha mam alpha hima ma yorowele mhm. ana sama sër bala sama jigéen ba yóbbante maam alpha ni bërit songu bir bagasi, yi jeex sër ba jeex jeex gusu ko genn góor ci délégation bi gu ñu wax yuq ko gusul sër bala maam faa wele ay sëra fi jëlal benen rek jox góor gi xëy ser la yitewo mu daldi di jël beneen sër jox mam cheikhul haji omar mam cheikhul haji omar jël ser bobu tek ci ginaawam niko ko alpha sama sirbo ba ah mam alpha daldi xamni ya ah, amna lu xew mu niko ko ah gi ser ba day ñaar ben la ciy doon bi ñuy ñew bagage yi na lool dis ci nun lool ñu am luñ ci jaay ko aw ah sëf ko bagage yi te loo yi nii ci bagage yi la bokk ni nga moomee bagage yi noonu nga moomee loo wi amaana sër ba cee ñu jaay la bokk wa illaa bi ñu agsee am na lu nu neexalee sa bëkk néeg bi ngir bëgg mu teel laa yëgal ni ñëw nanu bu bokkul ca la nu jaay rek ci li ñu neexalee bëkk néeg bi la bokk ñu daal di song lañ joxoon bëkk néeg ba xaaj Mansour fekk fa séru maam faa waddi wele ba daal di koy nangu ñëw jox ko maam seexul xaaj Omar mu daal di taxaw daal di tàllal sër bi ni fuuta ñu ni ko naamtaal mu ni fuuta ñu ni ko naamtaal mu ni fuuta ñetti yoon ñu ni ko naamtaal ñetti yoon mu ni maa ngi leen di wax ni doomu borom sër bii fii ma yem ci diina ji liggéeyal ci yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam yam fii ci liggéeyal ko Seydi Cheikh Ahmed Tidiane doomu borom sër bii moo ko war a mottali dana tàmbalee fii ma yem di diri tariixa bi di tasaare diina ji ba yóbbu ko fële ca doj wu ñuul wële may séen ci biir ndox ma ne ñu mooy doju ngor wii ci boori ndakaaru loola nag laa la ni maam Seydil Xaaji Malick maam Seexul Xaaji Omar moo nu junjoon mission am booba maam Ousmane mi baayam xamanteegul ak yaayam bi jotaay boobu jeexee la wéetoog maam Alfahim yoro wele ni ko maa ngi lay dénk baat yoo xam ni su ma sañoon nga fonkal ma ko ndax jëleewuma ko fii wa fi waxuñu ma ko ña ma ko wax ak fa ma ko jëlee ñoo ma teg fii ma mission bi ñoo ma mission bi fii ma ci yam ki ko war sa koy jur fan yu dana am ndonga lu làqar cee gànnaar di wër si xam-xam ba ak si gaaya ñu di ko taqdiir ci fanweeri at bu ñëwee na ngeen waxtaan ak mom ngeen dénk ko seen jigen bobu yàlla dana dogal ci seen diggante doom bu góor mooy doon sama xalifa ci lii ma newoon muy liggéeyal diina ji ak tarixa bi wax mam alfahima yorowele yu bare dénk ko ko mam alfahima yorowele àndaat ak délégation ba ñibbi si gaaya mam Mansour bi ñu agsee fan yu néew mam Ousmane radiallahu taala anhu jóge gànnaar ca déymaani ca borom xam-xam bu ñuy wax mahand baaba Mahand Baba borom xam-xam la woon muqaddam la woon ci tarixa bi sarxa na téere bu mag ci mësabu imam malik muy muxtasaru xalil tuddee sarxa ba muyassarul jalil muxtasaru xalil pënkalum téere la boo xam ni jàng ko rek beneen affaire la waxantuma laak di ko jàngale waaye waxantuma laak nag di ko sarxa Mahand Baba moomu mam Ousmane jàngee na ca moom ca moom la jóge nag am téere bu mu doon sàkku ñu ne ko du fi am ci li nu xam waaye dana am dëkk bu ñuy wax gaaya góor gu ñuy wax Cerno Malick Sow borom xam-xam la fa daara la fa yor boo demee dana ko am wala mu xam ku ko am looloo jëlee mam Ousmane Mauritanie ca gànnaar ci Deymaani indi ko gaaya ci daara yi Cerno Sow bi mu agsee waxtaan ak Cerno Malick Sow waxtaanu xam-xam waxtaane daara ba tuddal ko samay tànk tey nag mooy ab téere bu may wut bu ñuy wax watiis téere la boo xam ni ci tariqa alxaadiriya lay jàngale noonu jawahirul maani mel ci tariqatu tijaaniyatu noonu la watiis mel ci tariqa alxaadiriya maam Ousmane ci booba tariqa la nekkoon Cerno Malick Sow amoon téere ba mu ni ko am naa ko de waaye man bokkuma ci ñuy able téere xam nga boroom xam-xam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum mooy wax ni ki gën a bañ xam-xam mooy kiy able téere ka ca topp mooy ki koy àbb ba noppi di ko delloo mag ñi daawuñu able téere mhm. boo soxlawaan téere ñu am ko dañ la may ubbi téere bi nga toog ñu toog nga yër boo paree delloo leen boo koy sotti nga toog di sotti boo sonnee delloo leen seen téere ñu denc maam Malick Sow ni maam Ousmane mën naa de jox la nga sotti boo amee téere bi yóbbu li nga sotti bàyyi fi sama téere waaye jox la sama téere nga jëlee ko fii ci gaaya dem ak moom ba Jolof wala ngay dellu gànnaar duma ko man moo bàyyi maam Ousmane si ci gaaya mu féete ci daara yi Thierno Malick Sow ci tënk rek Serigne Mansour. pour jàll ci li ñu tax a jóg dégg dëgg fan yu néew maam Alfahim yoro wele maam faa wàdde wele gént ak gént. ni ko man daal gan gi ci daara ji damaa gént ab sëy dox ci suñu diggante ba doom ju góor juddu ci waaye doom ju góor ju siiw. maam alfahima yoro wele xelam ni yar oh. ca la ko maam cheikhul xaaju omar fuuti yu tàll déeyoon waaye dénkoon mu daal di bëlëf bëlëfee ni ko ah, xam naa de loolu gént la rek waaye daañ ci bàyyi xel daal di wéetoog Cerno euh, Malick Sow wéetoog maam Ousmane waxtaan ak moom ni ko dañu laa bëggoon a may soxna fii ci dëkk bi maam Ousmane gàntal ni man takk soxna indi wu ma fi téere bii mu fi indi maa ngi koy sotti bu noppee damay delluwaat ca mbokk ya ca boori Jolof yàlla miy dogal dogal ñu ni ko mën nga fee am soxna donte da ngay wat baye fi sa soxna wala sa boko meune yobbu sa dekk nga yobale sa soxna lola du jafé mam Ousmane ni len man suma don tak soxna fi awma luma ci def te yeen xamoo len ma xawma len ñu ni ko xam nañ la ndax borom xam-xam nga xam nañ la ndax doomi rew mi nga am def nak bu ci déssé lola dañ la ci wutu kérok Cerno malik saw lañ wax ni mo jël ñaar fukki kilo yi bi moom la ñu canee maam Fawade Wele daganal digganteem ak maam Ousmane si fan yu néew ñu fas sëy ba fan yu néew maam Alfahim Yoro Wele delluwaat na xoore fonde ca maam Seexul Xaaji Omar maam Seexul Xaaji Omar da koo séen ko alfa jërëjëf alfa jërëjëf alfa jërëjëf la ma la waxoon lépp mottali nga ko sëy ba am na doom jaa nga nee ma ci biiru yaayam góor lay doon bu juddee na ngeen ko tuddee Cerno lii maam mhm. Seexul Xaaji Omar bi mu koy wax maam Seydil Hadji malik ganeegul jamono fan yu néew maam Ousmane tàggoo fa am yéene dellu jolof le xew ca yoon wa xew fa ca la jaaree ñàkk bakkanam waaye mu waxoon leen ni sama soxna si laxasu na bu indee góor na ngeen ko tuddee kii nga xam ni sama wëllëri ak moom la yàlla dogalee sëy bi muy borom daara ji di carno Malick Sow looloo waral maam Seydi Hadj Malick ñu tuddee ko Thierno Malick Sow ñu di ko wax Malick Fawade Wele Hadj Mansour lee ma la waxoon ni la moo nekkoon mission wu maam Seexul Xaaji Omar. avant muy dem wax na mission bi ci loxoy kan la ne. kooku nag mooy maam Seex Sidil Xaaji Malik radiyallahu taala anhu mu boole woon ci liggéeyam nag boole woon ci mission boole woon ci njàngaleem fexe ba jëmbat cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir xeet wi Mouhamadul Mansour Fall. jërëjëf Oustaz Al Hadj Malick macha allah ci leeral yu am solo yooyu dama wax bi may ubbi ma ni maam Seex réew mi. suñ ci wax mag ñi dañuy jiital maam Cheikh Omar oustaz dafa mel ni ñi ngi en direct fële ca fez ci rawdu Cheikh Ahmed Tijani sharif wa tabarakallahu xam naa incha allahu rabbi léegi rek ñu ñu ñu jokkoo ak ñoom ci kàttanu yàlla ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni fa tabarakallahu ñoom moom lañ footi woon di al oustaz Pam mahtar Silla waaye di oustaz haji Mohamed Sall ña nga fale ca rawdu Cheikh Ahmed Tidiane ñu nuyu leen baax Haaj Mohamed salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum dafa mel ni salaamaaleykum salaamaaleykum président xam naa léegi ñu ñëw ñoom ña nga ca rawdu seydi Cheikh Ahmed Tijani euh, di président Hadj Mohamed Sall di président wu Miftahoul Houda waaye àndamte koog oustaz Pape Makhtar Sylla Hadj Mohamed salaamaaleykum Hadj Mohamed salaamaaleykum xam naa Hadj Samba mi ngi xool jokko bi ñu diggante ak ñoom incha allahu rabbi léegi rek ñu war a jokkoo ak Mor Sall ak oustaz Pam Maxtaar ci la fële ca rawdu Seydi Si Ahmed Tijaani nga xam ne oustaz Alxaaji Malick Mbay mi ngi koy wax léegi mi ngi koy wax léegi ci taxawaayu maam Cheikh Omar waaye ci liggéeyam ci réew mi bokk na si joxoñ gu mu joxoñ maam Cheikh Seydi Alxaaji Malick si radiallahu taala anhu kon dafa mel ni doon na doy rek pour waxtaane mag ñi ñu indi maam Cheikh Omar ak Cheikh Seydi Alxaaji Malick seen liggéey ci réew mi ci diine ji ci tariqa bi pour ñu mën a yóbbaale mag ñi nga xam ni ñooy magul réew mi nga xam ni lenn jaaduwul ñoom loolu xormaal leen wax nga ko léegi sa commencement fii ñu amul beneen réew bu ñu gën ay mag te loolu mooy koom bi gën a rëy ci réew mi mooy magu réew mi ndax stabilité bi nga xam ni moo am ci réew mi ak diine ji nga xam ni wér na te sell teñ ko am ko ci réew mi kenn mayuñu ko lu dul tariqa yi te tariqa yi nag lenn mayuñu ko loolu mag ñi nga xam ne ñoo ko samp ba pare yëkkati ko sellalaat ko euh, ndaw ñi war ko rey Haj Malick dafa mel ni foofu la ñuy jël si taxaw ci maam Cheikh Seydil Haj Malick ak liggéey bi mu liggéey ci réew mi moo xam ci njàngale la moo xam ci économique njàngale gu mu jàngale lu ndaw ñi war a ñaq dunde E, fa tabaarakallahu ak sellal gu maam Cheikh Seydil Hadji Maalik sellal fi en attendant ñuy jot. salaamaaleykum. ah dafa mel ni ñi nga am direct fële ca rawdu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu président ñu ngi lay nuyu. président ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah. Hadj Mohamed. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Hadj Sama ñu ngi koy dégg salaamaaleykum. président amul retour waaye xam naa ni daañu xool léegi incha allah ak xaj Samba fa tabarakallah nan la ñuy fexe rek ba amanteeg ñoom wala moom moo moo ñu ngi koy dégg en direct président waaw kay xam naa dinañ ñëwaat léegi ñu desaat Cheikh Haj malik mbay fa tabarakallahu ci liggéey mam Cheikh Seydil Haj malik ci réew mi nga xam ni doy nañu waxtaane ko moom mu uutu fi mag ñi fi des waaye uutu fi it maam Cheikh Omar mi nga xam ne moo ñu ko jox ñaan maam Cheikh Haj Malick Maodo tabaarakallaahu alxaaji Mansour maam Seydi alxaaji malik radiallahu taala anhu mission boobu ko Cheikhul Xaaji Omar dénk te booba ganeegul jamono bim paree pour samp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah waa mbokk rajo Café yi Talla ñu ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax. Mhm. di leen wàccee seen wàccuwaay. Mhm. di ñaan yàlla yal na yàlla na suñu jaar. amiin barke àjjuma bu tedd bi. amiin yaa rabbal aalamiin seen mbokk Mouhamed Sall. bon. Ah. Mhm. mooy ay waxtaan jaawiye soxna tijaani sërif sërif al fatima al maktum moom mi nga xam ni dëkkam bi di dëkk bu yaakaaru dëkkam bi di dëkk bu leer dëkkam bi di dëkk boo xam ni képp koo xam ni rek ñëw nga fi rek yàlla mën na faj saajo ndax moom mooy mu ñëdi kulli awliya arrahmani abil abbasi ahmad tii wax jooju nag neex naa layal wax sëriñ babacar si malik ñi nga xam ne ñëwu fi ci saahir nit ñi di ko gis ñëw na ci baatin ndax wayam wu boobu mu doon woy mooy inal mana illa saabi min madayaw mhm. soo dee jàng xasida bam nam koy ràbbee da ngay gis ni Serigne Babacar si ni mu lay tegtalee mbeddi faas yi te mhm. ni muy yëgsee ba buntu zawiya bi te mhm. dégg mu wax soxna Tijaani Serigne haza ubayduka inda al baabi yaqra'u walaysa yaxlamu illa anta man xaawo dëkk boobu nag ci lañ ñëwoon tey jii nii doon fi defoon gàmmuwaat bi tey jii nag tombeeg àjjuma ji ñu war fi def xadaratul juma bu rëy. Mhm. bu ak wajiba pour nga xam liggéeyu Seexuna na ci kaw suuf. nga xam ni Seexuna Tijaani dinaa rasulillahi moom la ndax la waxoon ni amara nabi imaamana bika masjidi mhm. li ifratil axlaaqi bi wirdi jali moom Seexuna Tijaani sërif la maamam waxoon mu wàcc mëkk ci pënd bi mhm. ngir jariñ mbindeef waaw Seexu Tijaan yi moom naka maamam joxe yëf ya mu jàppoon ni yëf kase la mhm. yëf yi moom dong la bëggoon na bëri ci béyti xalwaam ngir toog fa wéetal suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal na seex lii nga yor bana bu ñu taal la te bana du kenn nit mhm. bana buñ ko tegee am na ñu tax bu doon pour yow rek la marmet dañ ngay jox واتل نجرين مرح كل هذا مالي وحني أمر النبي إمامنا بك في بإفادة الأخلاق من الرجال من الشيخ نتيجاني دفع جاهل كي واحد ديغا خمي مملكة إمام إمام يرنتي بوح يرنتي بخمال نقول من بوق استمداد كل الأولياء سلم ولا تنكر محال الأكمل لولا يكني خمي ليا ورا الجري نتيجاني لولا يكني خمي صروخ yàlla yi ki nga xam ni yow yaa mën a defar nit ñi mhm. seeni mbir seeni aajo faju Seexuna Tijaan yi moomu tey moom lañ ñëw ziyaare ko ak suñu mbokk Mansour Fall moomu nekk ci Safina FM toog di bi ak suñu mbokku Oustaz Pape Makhtar si la. xam naa xaj Samba ñu laaj ko en tant que tàggkatu yonent bi bi mu ñëwee ba jàkkaarloog raw du seex ma Ahmed Tidiane yi lañ la yëg moom xaaj Mouhamed sàll sàkku leer di sàkku yiw mhm. mel mel ni xaaji Mouhamed Sall bi nga ñëwee eh, ci raw di Seydi si Ahmed Tidiane yi en tant que taggkatu yonent bi te ñu xam lu baax si cofeel sa cofeel ci Seydi Seydina Cheikh bi nga ñëwee ba jàkkaak eh, loo ko rawdu bi ana lan nga yëgaat xaaj Mouhamed waaw bi ma dikkee ba jàkkaarloog Cheikh Ahmed Tidiane lenn rek laa wax dama ko yàlla defal ñëpp taalibe seex bu ziyaare ci wuñu seex sa cofeel ci seex waxuma ni def na de mais dina am lu manqué mais bis ne lay jàkk maasu faal la jàkkar lu raw di soxla tijaani sérif nga yëg ci sa yaram loo xam ni bu nga juddoo ba léegi mosoo ko yëg dina am luy daw sa yaram loo xam ni da ngay jàpp ni sa deret mooy daw sa yaram déedéet seexuna tijaani mooy ki lay branché ay laar parce que keroog barki démb ci àllarba ji bi ñu jullee tàkkusaan ba pare dafa am ay sénégalais yi doon ziyaara surtout si xona tijaan yi mhm. ñu ni leen bërëb bi képp ku fi ñëw di ñëw day fekk yàlla war a faj say aajo ku yàlla dul fa say aajo doo dugg ci barabu soxna Tijaani képp ku narul texee doo dugg ci barabu soxna Tijaani mhm. ndax wax ju doy waar ni soxna Tijaani sérif moom ci jëmmi boppam mhm. mooy kiy seggal boppam ñi koy jaare si boobu laa ni alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal ñëpp pour ñu ñëw ziyaara ko amiin yaa rabbi barab boo xam ni barab bu toroxlu la barab boo xam ni képp kuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo dikkaatee di nga jël bind bari na ni ñuy taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mag ñi foofu ci senegal ci anam boo xam ni anam bi dafa dafa yàllaawul dafa yàllaawul boo dikkee ci bërëb bi bëgg koo fësal automatiquement dañ lay wàccee parce que njàng mi dafa war a ànd ak toroxlu njàng mi dafa war a ànd ak yar waaye njàng bi dafa war a ànd ak yàlla te warul nekk loo xam ne lu folklore xaaj xaj xaj bi nga ñëwee ba egg ban wegal nga ban ban wegeel nga amaat ban respect ngay joxaat mag ñi ñu am ci réew mi ku mel ni maam seex Seydi El Hadji ci ci lim ñu tàllal joxoñ ñu mag ñi ban ban cër ngay joxaat maam Cheikh Seydi El Hadji ak njabootam wala magu tariqa bi. dama dugg ci zaawiya bi bay génn dajeeg fii benn naar. ndeysaan ñuy waxtaan mënuma Anta ah, ah, Sénégal ma ko waaw ñuy waxtaan mënuma kii bi ngeen ko jël yóbbu ko Sénégal ñu ñu jël ñu jël bàmmeelu Cheikh Ahmed Tidiane indi ko Sénégal ah, ma ni ni ko ñun ñu ay rek ñu ñëw oh. fi mu ne ñu fi xam nga mu ngi ci am ci kiiraay si xamante njëri moo koy defal man ko loolu nga wax de bu mënoon a nekk dama koy yem ni yóbbu ko Sénégal waaye dama ko yóbbu ci de ndax ci sax ci defar na ko ba pare dama koy yem rek yóbbu ko Daaru Sall bu ko defee dëkk ma ñaam nga xam ni <laughs> yoonu sëriñ mhm. nga ñëw rek dugg ci bërëbam yi yow muy tat bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. soo génnootee war nga am beneen melokaan Uh-huh. war naa nit ñi war nañu laa gis ci beneen beneen jamono. Uh-huh. waaye war ñu laa gis ci jamono bi ñu doon gis jënd. ndeysaan pour nga xam ne mbir mi di nekk nekk wutukaay xaalis. dañ koy jàppee na ko suñu bàyyi mbay doon da daan defee. ndeysaan addu yonante bi ba yaramam tàng. addu yu bari loolu mu tourné ko ci àll bi ko ñu ko waroon dem dundee yaakaar li nga xam ne moom lañ ci sëriñ Babacar maa ngi ca di torox mukk waaye nag képp ku fi ñëw di nga am dund bu bees. bind bu bees bi ngay am mooy dina dina la delloo ci yàlla moom soxna Tidiane Chérif te du toog ak du toog ak yow bët ak bët di wax ak yow waaye dina wax ak yow ci baat di defar sa ruu wax ak ci baat yi di la éduquer ci xel pour yow nga am loo xam ne di nga ko jombale sa bopp barki démb Sidi Mbaye daf ma ko wax si ah. ñuy waxtaan fii ku fi ñëw daa jariñu waaye boo fi yàqoo dootoo defar moo tax bërëb bi yu bari dama ko fi raay di ko def mm-hmm. waaw mot may toog ba mu yàgg benn mag mu baax wan na benn poto bu sori lool mm-hmm. tegi ni mu soree ak raw bi mun ko waaw mun ma ci alxaaji baax su daañ ñëw toog musul jege raw bi mu ta jege raw bi foofu lay toog du def aw raatam su noppee jug dem yoonam wanaan ma beneen poto bu nekk ca fond ba ca ruq ba ne ma gis nga poto bële mu ne ko waaw mu ne ma nga xam islam foofu la daan toog di def ay awraatam mhm. musul nangoo jege raw bi dañuy gis nag ñoo xam ne dañuy ñëw tus ko wala ñuy gësam bunt ñi nga xam ne ñii oh. ñàkk xam martaba soo xam ne ci sérif moo tax ñuy def yenn yi macha allah kon yàlla nañu yàlla dimbali rek ñu xam kan mooy Seexuna Tijaani waaye yàlla nañu yàlla dimbali ñu xam lan mooy Seexuna Tijaani sérif jërëjëf xaaji Mohamed jërëjëf xaaji Mohamed fa tabaarakallahu ñu gis la ngeen gàmmu fa yaag oustad Pape Makhtar ñi ngi koy seetaan en direct ngeen gàmmu fa dajale fa nit ñu bari tagg yonent bi abdul Aziz jël baatu mam Alhaaji abdul Aziz si ba nga xam ne ku ko dégg rek sa xel dem ca moom Pape Makhtar waxtaan ci yonent bi waaye jël yëpp référence yëpp ba marok mu delloo ko mam Cheikh Seydi El malik waaw léegi il faut ñu mën a orienter loolu ñu def ko incha allah. incha allahu rabbi xam naa dañuy jël siwaat ak Haji Malick ci loolu nga xam fa tabaarakallahu moom la Haji Mouhamed Sall indil ci maam Cheikhu Ahmed Tijani waaye taxawaay maam Cheikh Seydil Haji Malick ci topp gi mu topp yonent bi waaye wéeruwaat ci ginnaaw Cheikhu Tijani nga xam ni xajul ci ginnaaw kenn. ko dul Cheikh Ahmed Tidiane Hadj Malick dafa mel ni daal liñ doon li ñu woon waxtaane moo Sall daf cee ñëw lañ ci dem directement mooy suñu magu réew suñu magu réew rawatina ku mel ni maam Cheikh Seydi Hadj Malick tabarakallahu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour Fall ñu nuyuwaat bu baax a baax ak a ziyaara sëñ Mouhamed Sall Oustaz Pape Makhtar Sylla ca dëkk bu tedd bee ñu ne sa xol bi day sedd lool booy dégg koo xam ni. Mm. nga ca faas di wax ngay dégg. ndeysaan sëñ Mansour rawdu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. Mm-hmm. sëriñ Mouhamed Sall wax na ko léegi. du kum neex dem fa de. du kum neex dem fa. déedéet. ah Malick am sa paas kay so paas yóbboowu fa. dëkk faas sax taxul ngay dem ca raw doom ba. sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu ngéejoo na ko ba tàyyi mhm. yàlla dogalu ko ci dundam mhm. way na ba tàyyi di wane bëggam dem faas waaye rek mu xam ni yàlla dogalu ko mhm. daan na sax bind ay xasiida mel ne kuy yóbbante ñu mën a dem faas naan leen bu ngeen demee faas jotalal leen ma sama nuyoo jotalal leen ma sama ziyaara ca la bokk xasidaam bu siiw boobu ngay dégg jàngkat yi di jàng xatamal wilayata maa xafa amrun bihi xataman nubuwata jadduhu walxaani yaa cheikhana yaa ahmadu tijaani xasidaam gu siiw googu ni mhm. nga ko tàmbalee woon ci yaa raaxilan mutasaabiqa rukbaani naxwal jinaani rawxi wa rayxaani day dem ba ci biir xasida ba muy wax ni law laa maqaadirul xakimi ilahina bu dul dogal loola rek am man du ngeen ma gëna bari tank faas ndax gëno leen ma bëgg dem faas gëno leen ma sopp ko tedd faas wa yalla dogal ci man ci zahir sama jëm du sukku faas ci zahir ci zahir maam Seydil haji Malik itam yalla loolu la ko nato bindal na bopam ni wa kam inda al ilahi ziyaratan zawayahu yàgg naa mébét yàgg naa ñaan yàgg naa ngéejoo yàlla wërsëgale ma ma sukk raw du faas waaye yàlla dogalu ko ci sama dund ci zahir moom itam bind na ba tàyyi bind yoo xam ne dalay wóor ni góor gi bi mu koy bind ay raññoo ay rañngooñam a ngi bas-basi bëgg a dem faas te yàlla dogalu ko ci dundam am nam at mu bay tool ba tool ba pare mu jaay génne azakaam neexal ay surgaam génne dund jur gi la ca des mat paasu faas waaye amul dogalu bi yàlla bu ko yóbbu faas mu jël alal ji lépp def ko cib mbuus woo cerno euh, alxaaji yusufa jóob la woo ni ko jëlal alal ji yow nga dem faas boo demee sama tool la maa ko bay mu lew ma domm nga séddaleel ma ko njabootu Seexuna Tijaani Sirif ga nekk faas boo demee nga ni leen wal maalu maalukumu wal abdu abdukumu wa suuku dikrukumu fi kulli saati man mi doon bay tool bi seen jaam laa tool bii ma doon bay seen alal la di leen tudd ak di leen waxtaane mooy sama zikrullahi ci bépp jamono rawdu bu mel noonu ku yàlla wërsëgale nga dem fa du da ngaa am paas rek waaye du da ngaa sopp seexu ne tijaani rek waaye sens la bu wér sens la bu rëy bu la yàlla wërsëgale buñ dellu siwaatee maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu taala ci liggéeyam mhm. bim liggéeyal askanu senegal liggéeyal ko diine liggéeyal ko tarixa bi wax naa la sànq ni la maam Seexul Xaaji Omar cité woon turam cité itam ab yanam cité yitam ni moo koy donn ci mission bi bi mu ñëwee lim njëkk a teg comme jéego mhm. pour atteindre mission boobu xam nga mooy lana mooy lan mooy jàng ak jàngale mooy jàng ak jàngale ak jàngale ndax ki mu fi wuutu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la loon ci pénc mi ngir defar waa pénc mi waaye ngir defar pénc mi jàng ak jàngale mam sidil haji malik dira dundam jàng ak jàngale la fi nekewon ndax xamna ni dafa dafa melni dañuy jël wat ci rawdu ba haji malik ci bismillah wat ci ak haji mohammed Sall fa tabarakallah président ñooñu nee ñu ko nga wax daal allo président allo wa mbokk alo président ñu ngi leen di. ma tey rek ci mission bi. di wax ak yéen ci maam Cheikhouna Tidiane Chérif. nekk fii ci dëkkam bu sell bi. Ah, mhm. ñu nekk fekk suñu kilifa. Mhm. suñu sëriñ. Mhm. Mawlaaya Abdoul Aziz Diop. ak suñu Oustaz Makhtar Sylla. waaw ñu toog fii. war a waxtaanee tey sang bu tedd bi Cheikhouna Tidiane Chérif. ak liggéey yu mag ñu ñu bàyyi Tiwaawan ci zahir maam Cheikh Al Hadji Malick ak njabootam ñu war a waxtaanee lenn rek ci soxna Tidiane Serif loo xam ni dina jëriñ. mbooloo xaaj ma xaaj Mohamed xaaj Mohamed ñu ngi fii ak oustaz Al Hadji Malick Mbaye doon waxtaanee liggéeyu mag ñi ak ndaw ñi eh, fonk gi ñu war a fonk mag ñi ñu am ci réew mi te nga xam ni. amul beneen réew bu am mag ñi mel ni mag ñi réew mi am aji aha hmm. waaw alxaaji Mari Mbay ñoo ngi lay ziar a baax la fay baax a baax baax baax te wàcc waaye maam Cheikh Seydi alxaaji Mari ah dafa mel ni ak kii ah, dinañ ci dellusiwaat léegi waaye xaaj Malik yaa ngi nekkoon fa am solo atana sàmba di delluwaat fële barakallahu alxaaji Abdou Aziz moomu mu tudd ñu bokk ca délégation ba aha seet la ci maam alxaaji yusufa Diop mii ngay tudd léegi maam Seydil Xaaji Malick yóbbante woon hëddiyaam ngir mu yóbbul ko njabooti Seexuna Tijaani ga tëdd faas yàlla mi dogal dogal Seydi Xaaji Malick bi mu tàmbalee liggéeyam boobu xaj man Mansour jéegoom bi mu njëkk mooy jàng ak jàngale mhm. jàng ak jàngale xam nga ah. nit xam nga société boo ko bëggee defar nit boo ko bëggee defar danga koy jàngal ndax yàllaa ko wërsëgalem xel moo xam ni bu ca defee xam-xam léppay ommatu topp ko moom nit waaye bu jëlee xel moomu bàyyi ko muy nelaw moom nit muy wëlbatiku di toppe moom nit muy wëlbatiku di jariñ ñeneen ole mu fexe ba jël ñooña jariñoo leen waaye moom muy mujj nekk matériel boo xam ne rek dafay nekkoon comme am xar wala aw bëy ah. maam Seydi Hadj Malick bindal na boppam ni doomu aadama balaa am valeur ba mën a gën am xar wala mu gën aw bëy mooy bu amee xam-xam waaye bu amul xam-xam moom loo amaat am xar am na ko aw bëy am na ko wa laysa farqun baynama al insaani wal xayawaani duunama al irfaani mu fexe ba jël xam-xam teg ko muy première jéegoom ngir jëmbate ko liggéeyam bii nga xam ni moom la ko seexul xaaji omar dénkoon tàmbale nag ci ay daara dem ci ay dëkk ubbi leen dem ci ay tool gor leen yii mu sanc leen yii daara mu taal fay jàngu fu ne ci àddina bi fu ne ci biir réew mi ku ne di dégg Malick Fa Wade Wele ku ne di dégg xam-xamam ba ku ne di dégg ci ciru yàllaam ga boo agsee rek am ñoñ ba ñuy agsi dañoo agsi woon ngir yërndu yi ndax li ñuy dégg dëgg laam déet li ñuy dégg ci xam ndax dëgg laam li ñuy dégg ci wilaaya ndax dëgg ndaam déet waaye ku agsi rek ku yàlla ñor dëgg mi ngi nii waaye itam ku am ndigal ci mission mi ngi nii am ci ñooñ ba ñu agsee mboolem la xamoon dañ ko laf سكوت كانوا سيد الحاج مالك تلا بوك سيرين هادي توري تلا بوك مام ألفا مام مام مام الحاج روحان غم مبال برنا تي ماك ني خاني بي ني نيو الحاج مالك دانيو فيس ديل تي خام خام واي فيس ديل اك ولايه واي بي نيو تي مام سيد الحاج مالك خام ناني كي كوي يالا باخي غير مو واي غير مو واي غير مو يي دار حاج منصور maam Seydil Hadj malit bind na ba tàyyi di soññee ci mhm. ku bëgg a defal yàlla lu mu gërëm ku bëgg a defal yàlla lu mu gërëm sonneel xam-xam soo bëggee liggéeyal diine sonneel xam-xam mooy lool fekk amoo ko rek yow dangay ngay pelamtu rek la yàlla bëgg xamoo ko mënoo caa nekk la yàlla di bañ xamoo ko mënoo koo moytandiku pour nga dajeek yàlla dajeek ngërëmam xam-xama la koy may bind na ci bataay yi wax na ci bataay yi yeete na ci bataay yi soññe na ci bataay yi ca la bokk alaa ya bani haza zamani daawtukum li ixyaai diinin bil ulumi ajibu maa ngi leen di woo yéen sama jeunesse su réew maa ngi leen di woo yéen sama njaboot nañu ànd ngir dundal diine waaye nag ngeen xam ni diine moom ni ñu koy dundalee mooy xam-xam kon nañu àndandoo ñun ñëpp ñu sàkku ji xam-xam ñu jàng ba géeju ci liggéeyal diine liggéeyal njabooti diine Serigne Mansour loolu la maam Seydi Hadj Malick njëkk teg comme jéego te mooy jàng ak jàngale waaye mu xam ni loolu pour diine la waaye pour liggéey société bi nag pour liggéey sa àddina nag loola itam ñaq jariñu moo koy mayee mu gor tool yi samp daara daggulub tool fu mu mës bala faa nangoo fanaan dañ ko wan fu mën a jàngalee dañ ko wan foo xam ne bu xëyee dana fa mën a dem tuur fa ñaxam ca njaarnde ca gosaas ca jagsaaw saw fi mën a dem daa fa fekk ñu ne la daara jii la mam Seydi Hadj Malick doon jàngale tool bii la doon bayee mu boole liggéey ak jaamu yàlla ci loolu la liggéeyee li mu liggéey ci loolu la réaliser lii mu réaliser waaye nag fi ñuy tëjee ak liggéeyu mam Seydi Hadj Malick rawatina période bi ñu toll muy gamu ji bu ñëw da boole ci liggéeyam fexe ba jàngale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fexe ba soppaloo ko ak njabotam ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk xamoo doxinam xamu jar jaram xamu jëfëndikoom mënoo ko roy te ku ko royul du baax fii ci àddina bu alaxira lay gën a bon mu fexe ba jàngale ay jikkoom fexe ba jàngale ay baax baaxam waaye fexe ba soppaloo ko sunug njaboot ndax sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tas la ëllëg ca kanamu subhanahu wa taala comme ni ko maam Abdul Aziz si Dabbaax doon waxee xubbu taaha lil muznibina najaatun wa amanun min hawli yawmi liqaa'i Mouhamadul Mansour Fall jërëjëf oustaz alhaaji Malick Seydi alhaaji Malick commencé samp daara xam ne nit ki pour mo nga mën ko defar du nit ki nga soxla waaye nite fexe ba mu nite jàngal ko fexe ba mu yee ko yar ko parce que jangol ko rek mam Cheikh Seydil Hadj mali xamoon ni doy waye day bolé jangalé bi ak yar bi ak yee ba nga yew ba kenn man la man la baña nax nga jang ba ba kenn man la baña a waye tamit nga yaru ba ko gis fooy dundu meuna dund ak ñom kon fa tabarakallah yoy ay acte la yo xamni ñun ndaw ñi raw na ndaw rew mi war nañ ko roy ci mak ñoñu nga xamni lañ amone benen bi nga wax ko legi mu fexe ba nampatal njaboot gi ci ñu bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñu fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na mu utalul boppam sax bis mu woote woote bu rëy boobu nga xam ne mooy gàmm tew Haj Malik dafa mel ni démb yenn ndaw ñi ak ñi nga xam ne xamuñu woon ndax maam sax Seydil Haj Malik yamul rek ci xam li ci téere yi yàlla daf ko may muy xam leneen loo xam ne bokkut ak sax li nekk ci téere yi su dee ndaw lu jàngul nag wala ndaw lu mel ni Mansour yam mm-hmm. ci li ci téere yi mm-hmm. eh, amaana nga weddiku xam ne la mu xam ëpp na li nekk ci téere yi da ngay juum démb mm-hmm. ñëpp contrôle nañ walla ñenn ñi nga xamul woon contrôle nañ maam Cheikh Seydil Hadj Malick waxuma sax ci réew mi ba ci àdduna bi ci gàmmu def ko bidaa def ko nangam ak nangam haramal ko bo barki dem rek ma ngi gis ci internet bi kuñu wax kuñu wax ni imam la xawma ci ban rew la nek mu taxaw ni lek yi sax yi ñuy lek ci gam yi dafa haram te te tey adduna mujj wëlbatiku jox mam sayyid al Hadji malik raison ba mbolam rew aduna bi ñëpp woote nañu gam gàmm magal màggal muhammad Mouhamed malik Malick tabaarakallaahu alxaaji Mansour Fall Euh, gàmmu ndax bidaa la wala du bidaa moom weesu nañ ko. weesu nañ ko aha léegi fi ñu toll mooy gàmmu moom farata la wala sunna la ndax jikkoy jullit ñi waaye dundinu jullit ñi du jag mukk du yéwén mukk lu dul danoo roy dund yonent bi sallallahu alayhi wa te comme dundu noog moom. ñi ci bare itam ñi man lanu mel géejootunu ci xam-xam ngir xam dëgg-dëgg dundam nga lu mu woon jikkoom ya lu mu woon jëfandikoom ya nu mu woon maam Seydil Xaaji Malik xam ni loolu kanam la jëm réere yonent bi kanam la jëm réere jikkoom kanam la jëm réereem njàngaleem kanam la jëm mm-hmm. mu fexe ba ut ci at mi bis boo xam ni lu waay jàppoon daa ko bàyyi ñëw ci benn bërëb ci benn guddi mu waxtaanal la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba boo fa jógee lu bari lu la réeroon ci dundam moom sallallahu alayhi wa sallam daa ko xamaat xam goo xani daa ca mën a roy sa dund nga di ko tollaleeg dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mansour yonent bi léppam dañ koo war a roy tollale koog sunu lépp sunu lépp dan koo war a defee ni lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngay lekkee ni ngay tëddee ni ngay jàppee na ngay waajee sax ca waajukaay ba dañ koy jàngale nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee lan la ñu doyee jàngale gi mooy dañoo bëgg ñun itam nañ koy defee bu ñu demee ca waajukaay ba di waajee comme na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan waajee loolu bu koy jàngalee ci yonent bi firiwul lu ëpp sunu lépp dañ ko war a copier ci lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo fi bëggoon a jàngale tey nu baayam wala maamam daan waajee ku dul yonent bi aw xas lay doon aw ŋàññi lay doon ak suufe lay doon ak doyadi lay doon waaye yonent bi duñ ko nëbbal lennam ndax sunu lépp ci léppam lañ ko war a recopier mm-hmm. loolu nag buñ jàngatul gëstootunu ñun ñi ñëw gannaawam nan lañ koy xamee du ñu am fu ñu koy déggee du ñu am ku ñu koy waxal maam Seydil xaaj Malick xam ni loolu munta ñàkk ci diine munta ñàkk ci société ci di xamle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu fi nekkee woon ak lu mu fi nekkee woon ak lu mu fi jàngaleeg lu mu fi bàyyi maam Seydi Hadji Malick woote guddeem googa bu agsee njabootam gépp daje mu wat yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko jàngale yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëfandiku digam ak boromam jëfandikoom digam ak ay waye jangale wat yitam tag yonenti bi tag go xamni da ko sop ciofel go xamni ciofel ga lay omat ci roy ko walaw kana hubbuka sadiqan la ata'tahu ndax innal muhibba liman yuhibbu muti'u ko sop rek pare ko pour roy daa fi gis su suñuy xale suñuy jigéen ñu nuy roy dañ leen a sopp rek dañ leen a jàngal ñooñu rek dañ leen a wan ñooñu rek mam Seydi Hadj Malick xam ne nag koo fi roy ku dul bi nga royoon yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko ëpp mujj moom mu wane yonent bi moom mu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taamu ko ci bis boobu loolu nag laa ni fi ñu toll nii ci jamono ak ni mu yàqoo fii ñu toll ci jamono ak ni xam-xam raafee fii ñu toll ci jamono ak ni jikko yonent bi naree raar nii sànku gàmmu moom ci ni ko maam Seydil Xaaji Malik bëggee woon moom léegi farata la ñuy wax wala sunna waaye kenn mënatu ko génnee ci diina ji ndax jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ mës a deñ di ko soxla te comme dematuñ ci daara yi dematuñ ci jàngukaay yi buñ amee jotaay bu ñuy daje waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën koo royaat mën koo soppaat loola farata la Mouhamadul Mansour Fall boo amee nag mhm. ak ndesem xel am gàttu xam-xam am sax lamiñ wu ñaaw banaan loolu ngeen di def seen gàmm yooyu ngeen di def lu bon la seen gàmm yooyu ngeen di def bidaa la te bu ñu ko waxee mooy loo xam ne ku ci nekk ba dee moom safara nga jëm directement xadis bañ lay taril mooy kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi naar lépp bidaa ak cànkute la te ak cànkute moom safara la jëmee borom nga xam ni kon booy gàmm pour ñoom boo bàyyiwul gàmm ba dee safara nga jëm man nag nee leen budé dee mom moom moo safara nañu dem ndax safara so xani bo démé da fa fekk mam sayyidul hajj malik bo démé da ta fekk mam Serigne Babacar kersi bo démé da fa fekk mam Cheikhul hajj abdul Aziz Sy Dabakh daa fa fekk mam Cheikhul hajj Omar fouti Tall ak mbollem mag ñi nga xamni ñi yàlla gërëm luñu fi ci adina gërëm leen ci seen àllaaxira ci luñu xam ak luñu xamul budé ñom dañoo gàmm ba dem sawara ku gàmmooti dem sawara fekk leen fa safara soosu du metti Mouhamadul Mansour Fall jërëjëf alxaaji Malick macha allah ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne waxuma la sax léegi li ngay wax naan sunna la farata la te adduna bi yëpp jël ko fekk ci roy ci suñu mag ñi ñi ñu am ci réew mi parce que du ma wax ni maam Cheikh Seydil Hadji Malick fi njëkk gàmmo waaye ni muy gàmmoo te adduna bi roy ko ci moo ko fi njëkk a def ci lu wér ci ci ci ci lu leer loo xam ni kenn du amul adduna bi ku koy sikki sàkka ku nekk gis na trois ans yi wala quatre ans yi ni àdduna bi mel ci ci gàmm kon est-ce que su adduna bi wëlbati ko joxaat raison joxaat loxo suñu magu réew mi est-ce que dootul jàll ñun ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi ak fu ñu mën a jànge ñu bàyyi xel ni amul ñu école bu gën a wér amul ñu lu ñuy royee feneen ndax su dee jàngalee yonent bi la gënuñu kaa dégg maam Cheikh Seydil Hadji Malick gënuñu kaa déggu maam Cheikh Omar Fouti ñu dellu ñu joxaat leen suñuy nopp joxaat leen suñu loxo Haj Malick tabaarakallahu Haji Mansour Fall boo nee dangaa jàng moo tax yow li maam Seydil Haji malik ak mag ñi fi nekkaloon ci réew mi indi daal yow dangaa gis ni ñoom daal jàmbaar la woon waaye danoo juum lu tax ñu indi fi nangam yow fan yu néew nga juddu boobaak léegi nga fi jàng li nga fi jàng ni yow yaay feeñal njuumtey cheikhul xaaji omar yaay feeñal njuum njuumtey maam seydil xaaji malik boroom xel yi sax ay ree nga leen di def ndax yu bare boo ne yow sunna nga bëgg dund mhm. gënoo koo fonk mag ñi mhm. mag ñi seen lépp dañ ko tollale ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mam Sidi Xaaj Malik jàngaleem googu ma la wax ak yareem googu ma la wax lam ca jiitaloon mooy xiirtal nit ñi ci topp sunna waaye moytandiku lépp loo xam ni dafa wuute ak sunna mhm. bind na ci xasiidaam yi ba tàyyi mhm. di dénoncer lépp lu wuuteeg sunna di mhm. citer bidaa ak di ko ñaawlu waaye ak di ko bañ waaye ak di ca moytandikuloo ay njabootam di ca tàbbi mhm. ku mel noon nag Seydi Hajj Maalik bi muy aj ajam nga aj ba mu farataam yamat mu am yéene toog madinatul munawara dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bakkanam yam fa la ko jaraloon loola mooy parce que fii muy dund day réew moo xam ni dund sunna ñoru leen dund sunna ñoru leen dund sunna niñ ko war a dundee ñoru leen moom ni mu bëgg a dundee sunna wóor na ko ni dana fi tumuranke wóor na ko ni dana fi xat mu am yéene dem ba ca raw du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mottali fa li des ci dundam def ñuy tuddee mujaawara nitu yàlla yu bare def nañ ko alfa hasim mi way daarul habibi qulubuna tahwaha bu alaaji abdul aziz dabbaax bëggoon boobu alfa hasim moomu sët ci ci maam seexul xaaji omar mi moo way xasida boobu mujaawara la defoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na nitu yàlla yu ko def mhm. maam Seydil Xaaji Malik ak Makka def fa ñetti at ngir bëgg a def mujaawaraam ba la ko fa jëlewaat jëlewaat ko fa mu ñëw mottali si mission kooku nag boo nee yow sunna ngay dund te mënoo def ak moom boo nee yow lu wuteeg sunna ngay xeex boole ca xeex ba xeex Seydil Xaaji Malik nay wax ni yow xamoo sunna waaye xamoo maam Cheikh Sidil Hadji Malick bokkoon na ci bañam bidaa waaye bokkoon na ci bëgg dund sunnaam ak gon ci ni yàlla bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewul woon ñaan dee dinaa ko ñaan ndax damay dund ñoo xam ni dañoo pare pour tër sunna rendi ko suul ko maasale ba mhm. ca lay wax alaa ya fa inni fi haza zamani xaribu man damaa pare pour dund sunna waaye damaa wóor ne danaa tumuranke ndax ñi pare pour dund ko ñu néew lañu looloo tax walaw laa tamannil mawti min fii ka man uhu tamannaytuhu inni ilayhi atubu boo terewul woon ñaan dee yow yonent bi sallallahu alayhi wa man Seydil Hadji Malick danaa ko ñaan ndax ñi may dundal pare wuñu pour dund sunna koo xam ne sunna jaral na ko yow bo ne sunna ngay dund waye mëno def ak mom sëñ Mansour dañuy wax waye xamu sunna waye itam xamoo Seydil Hadji Malick mii Alhaji Mansour Fall. jërëjëf hajj malik fa tabarakallahu kom ni nga ko wax parce que ñi ngi taxaw de de de de de de contour mak ñi rawati rawatina joxinu mak ñi ba ci ba ci ba ci ba ci wazifa yi ñuy def ci juma ji ci juma yi waye ba ci cérémonie yi ñuy def wax naa la ko sànq ci ki nga xam ni moo génne ci internet bi uh-huh. tu ñu tuddee ko imam uh-huh. uh, te te ñun mag ñi fa tabarakallahu li ñu indil ci doxalin gisuñu lu gën a set lu gën a leer kon yaakaar na ni kon ndaw ñi war nañoo delluwaat njukkal mag ñi te bàyyi bàyyiwaat xel seen bopp bàyyiwaat xel tamit li ñu am uh-huh. parce la Serigne Cheikh waxoon ni yàlla li mu am ci diine ci senegal kon xam nga ni benen rew amul lu mel nonu te kenn liggéeyu ko fi loolu mag ñi nga xam ne ñoo fi toog toogaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yaatal maam Cheikh Seydil Hadj Malick ci sellte gi ci yaatal gi waaye ci dund sunna gi nga xam ni damay wax ni mu amul lenn lu ko nit mën a duutee baaraam ci roy gi mu roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Hadj Malick pour bàyyiwaat loo xel ndaw ñi seen responsabilité ci wat mag ñi waaye bàyyiwaat loo xel ñi nga xam ne xay na ñooy ñoo ñoo war a jàngi war ñu d war a déglu mag ñi ñu bañ a topp ñeneen ñu leen ñu dugal ci contour mag ñi Haj Malik tabaarakallaahu Sëriñ Mansour xam nga wax nga léegi sa biir wax ni yow boo jàngee te yem ci téere yi bëgg weddi koo xam ni ah Haj Malick nañ dellu nañ dellu fële ci raw du Seydi Cheikh Ahmed Tidiane bi ñu fekk fa président Haj Mohamed Sall oustaz Pape Makhtar salaamaaleykum bisimilah ñu déglu Moulay Abdou Aziz Diop ok di sëtu di sëtu sax Seydi Haj Malick radiyallahu taala anhu mhm. ñoo ngi nekk Pape

di leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara tabarakallahu di nuyu waa Sénégal bi yëpp tabarakallahu jiite ko suñu xel bi baxal tabarakallahu suñu baba ko moosu ak i rakkam yëpp ñaan ñaan yàlla yal na yàlla dolli Sénégal jàmm ci barke borom ndaw bi ñu nekk tabarakallah di nuyu Oustaz Mansour Fall tabarakallahu ak Alxaaji Malick Mbaye Bolle ولنا يلا فينا يلا قوم لهم امين يا رب العالمين درجه الشيخ سيدي احمد تجاني رضي الله عنه moom mi nga xam ni mooy yaakaari suñu mag yu baax yooyu a nekk na nga xam ni lu ñu am ñoom yàlla leen yàlla leen yàlla leen ko joxe ci dara day moo rey ak lampes ahmad tijan radiallahu anhu bu rafet rek ñu barkeelu benn xalifa benn xasida bu mu am sëriñ babacar رضي الله عنه ما كنا في الكروسي دتا منك من رامس دل ما قم دار وصار بعدي مي كل منين كل منين بخو أنا دفعنا وترى أبوي بس بنا سوت الشيخ ويجان خفي بدي أنا منكو ويجان كتر منكو ما دخل بقولنا زيارة في الشيخ محمد جان زيد لما يجان منكو يعني يا خبر منكو منكو وقف وقف nga kon xasida la boo xam ne moom sëriñ Babacar tabarakallahu cheikh nangul na ko bu ko defee rek xasida boobu ñu barkeelu ci tuuti tabarakallahu ñaan yàlla ci daraje Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yal na ko yàlla def muy yiw mu xam ko suñu réew moom tabarakallah ko defee rek ñu barkeelu ci rek tabarakallah يا قطب يا غوث يا مولاي يا وجب يا منتهى أملي بالله يا قمر يا يا مولاي يا وجب يا منتهى املي بالله يا يا والي الصلح في حال محول إلى الصلاة فلا يأتي لي الضرر يا خبر يا خوش يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا خبر يا مقرب العبد للمولى مواصله يا من يؤم إلى أكنافه البشر يا خذ يا قوس يا مولاي يا يا منتهى امري بالله يا خذ يا مقتضى الحال في النداء ويا قياس كل مناح عنده وثر يا قد يا حرس يا مولاي يا مزر يا منتهى أملي بالله يا حمد يا سر يا يا مأواي كل أذى ويا أمان ويا مأواي يا فخر يا خبر يا حسر يا مولاي يا يا منتهى أملي بالله يا يا زخر يا يسور يا كنز ah dafa mel ni dagg na de dafa mel ni dagg na waaye daañu si xëy na dañuy nañ jéem a jokkoo ak ñoom incha allahu rabbi Haj Malick. barakallahu eh, ñu jaajëfal ñoom Abdoul Aziz. Mhm. ña nga fële ca rawdu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. waaye ñun ñu ñun ñu ñun ñu continuer rek xam naa ci lancé boobu. Ah parce que mi ngi ñëw di di wéralaat liggéeyu mag ñi rek. macha allah ci foofu gis nga la mu yëkkati. ca rawdu boobu. Mhm. su ko defee yaa ngi doon indi léegi. Ah. ci eh, suñu tem ci ndaw ñi nga xam ni ah. jànguñu ba pare di di wëlbatiku nag di di ngat mag ñi xaj barakallahu xaaji mansour ñu jaajëfalaat mbokk yooyu ca rawdu cheikh sidi ahmed tidiane sërif radiallahu taala anhu yal na yàlla dolli ñoo taas ci barkeem yaa ngi tudd sànq koo xam ni lay tiitaroo jàng naa tukki na université sàngam jaamia sàngam laa génnee dajale ay diplômam ñëw di gàgganti maam Seexul Xaaji Omar wala muy gàgganti maam Seex Sidil Xaaji Malik ak mag ñi mel ni ñoom te ne woon fii ci biir réew mi ak sax biti réew Mansour bu fekkee ni yow li nga am ci xam-xam lépp ci téere yi la yem danga war yam ci téere yi di wax ak ñiy wax ci téere yi waaye boo amee xam-xamu téere yi lañ cay tere nga moytandiku ko lañ cay santaane nga jëf ca la nga man yàlla dana la wër wërsëgale beneen xam-xam boo xam ne nekkul woon ci téere yi loolu subhaanahu moo ko digee te lum digee dana ko def bam ne wattaqullah wa yuallimukumullah taqwallahi yi nga xam ni ku ko amee yàlla dana la jàngal lum jàngalul ku amul taqwa ju tol ne ji nga am taqwa googi la mag ñi amoon yàlla jàngal leen yàlla xamal leen yàlla ilham leen loo xam ni seen taqwallahi moo tax yàlla xamal leen ko léegi yow boo amul taqwa joojee ka am taqwa ja wax lo xamul do ko xam parce que amo taqwa gim am ba xam ko yow nga ni comme jang na dal lima jang lu ci bokul lima xam ku indi lenen lu wuuteeg li yow nga joom sam xel da gat bu fekke ni yow li nga xam ku xam lenen lu bokul ci li nga xam nga ni loola du deug sam xel da gat la wax ndax nak xamoo lepp pego lepp de وفوق كل ذي علم عليم القران واخ مام سيدي حاج مالك نتلينا واخي امام الشافعي مولانا محمد ابن ادريس موي مويتاندي كولو غاوا ويدي موي مويتاندي كولو دي ويدي لو خامول ndax nak li yalla am li yalla maye ñi yalla am bare nañu yalla sañ na may nit lo xamul bo ne comme xawmako rek du deug sam xel daa gàtt xam nga imaam boobu ngay tudd ca ardul xijaaz saalix al fawzaan lañ koy wax moo toog di def fatwa ñu laaj ko comme ñoom li ñu gëm di ko jàngale di bind ay téere di ko ca def di def ay xutbatul jumaa di ko ca wax mhm. mooy gàmm moom ku ko bàyyiwul safara nga jëm dégg naa ci seen benn xutba ci seen imaam yi kenn muy gàmm ba muy wax ci gàmm ba àgg ci ni kii gàmmoo gën bon reykatu nit allahu gàmmoo gën a bon naankatu sàngara kii gàmmoo gën a bon ki fanaan ci jigéeni jàmbur xoolal wax ju ñaaw ji ci ci ci seen fatwa ci seeni xutbatul jumaat yi allahu akbar ñii di ko def ci seeni fatwa ñi di ko def ci seeni téere yi di ko jàngale saare fawsaan da cee mujjee feeñ ci li ñu yëg moom la ñu laaj man gàmmuwuma ga Mansour Fall moo doon gàmm togg ay reeram tibbal ma ndax loola mu ma tibbal sa ñaa koo mu ni ma loola reer ci daa araam ndax ci gàmmu lañ ko togg xam nga ñooñu réeri nañu daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réeri nañu limaam sidil Hadji malik doon doyee gàmm ba tax mu woote ca soññee ca santaane ko nekk ci ba jóge fi bàyyi kook ñim fi bàyyi waaye fan la ñu teg lañuy wax comme xamuñu ko keneen ku ni da koo xam la nga wax wérul comme ñun defuñu ko keneen ku ni yaa ngi koy def la ngay def wérul loola nag laa ni xel mu gàtt képp moo ci yóbbu nit la koy waral nag mooy ñi ngi tasaaroo di tasaare seen gis-gisin yu gàtt yu suufe yooyu du ko tasaare ci mbooleem àddina bi ci seeni téere di jël ay nit di leen former ba ñu mel na nu bëgg di wax la bëgg di leen tasaare ci àddina bi fii ci sunu boor yi itam am fi ñoñ ñoom lañ fi toogal di def seeni xutba waaye di jàngale seeni téere waaye di tasaare seen xalaat yu suufe yii waaye boo ci bëggee mucc yow sëñ Mansour bëgg sët njaboot mucc ci fexeel ba jàngal say njaboot say mag fexeel ba jàngal say njaboot say mag ki ni maam Seydil Hadji Malick nekkul woon ci sunna jàngal ko maam di Hadji Malick jàngal ko lim bind ci nekk ci sunna waaye jàngal ko lim bind ci dénoncé bida mhm. bind na moom maam Seydil Hadji Malick ci dénoncé bida ni waman ata xayra masnuunin fa qurbatuhu mardudatun sarra raddin kullama alana képp koo xam ne fi indi ak jaamu yàlla te jaamu yàlla googu buñ ko jeexee ci biir sunna duñ ko fa fekk loolay bida nga tuddee lii ak jaamu yàlla te fekkuñu ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolay bidaa mam Sidi Hadj Malick nee na ku indi loola ak koo mën a doon ak foo mën a dëkk ak loo mën a xam dañ lay delloo sa jëf joojo ñun li ñuy jaamoo yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko leer na waaw ki jàngale lii doon dund lii doon yare ci lii yow nga tuddee ko nitug bidaa tuddee ko lim fi indi bidaa la tuddee ko koo xam ni lam nekkoon ba faatu ca ku ca nekk ba faatu ca safara nga jëm xam nga lii nag Serigne Mansour. buy tasaaroo ci suñu boor yii. buy tasaaroo ci suñu réew yii. la koy waral mooy ñun jàngalatuñu suñuy njaboot suñuy mag jàngalatuñu suñuy njaboot suñu mbindi mag waaye mag ñële réere yonent bi réere gu toll ne kii gàmm nga yamale ko kii jaay boppam kii gàmm nga yamale ko kii naan sàngara kii gàmm nga yamale ko reykatu nit ñooñu yonent bi lu ñu réere yonent boobu ñu réere nag yàlla bu nu yàlla nattoo réere ko yàlla bu nu yàlla nattoo ñu réere ñi nga xam ne yonent bi réeru leen muy sunu mag ñii ca maam Seexul Xaaji Omar ca maam Seexal Xaaji Malik ca maam Borom Touba ca maam Seexul Islam ca Kawlax ak mbooleem mag ñi nga xam ne li ñu fi nekke woon mooy fexe ba jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe ba tasaare njàngaleem alxaaji Mansour Fall. jërëjëf oustaz alxaaji Malick macha allah ñoo euh, kontaan lool wax dëgg yàlla ci dalal la ndax yow kenn ku nekk xam na la ci xeex bi ci terrain bi. ci défendre mag ñi ci nekk avocat wu mag ñi ci ci défendre diine waaye ci képp ko nga xam ni tàllal nga baaraam pour ba mu jëm ci mag ñi rek yaa ngi jaasi boo nga xam ni pare nga ci xam-xam ak yar ak teggin pour dagg ko Haj ñu jaajëfal la ci bu baax a baax waaye jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñi nga àndoon ak ñun ci seen émission ñi nga ànd ak ci seen émission Miftahoul Houda surtout ñi nga xam ne ña nga nekk ca rawdu ba di al oustaz Pape Makhtar ak xaaj Mouhamed Sall fa tabarakallahu Mouhamed Diop ñu nuyu ko bu baax a baax oustaz alxaaji Mansour Seck imam mi ngi lay nuyu bu baax a baax di bëgg lool wax dëgg yàlla eh, ci émission bi di ànd ak ñun su nekk fa tabarakallahu oustaz eh, Mansour ñu nuyu ko bu baax Omar Niang ñoom it ñu nuyu ko bu baax a baax waaye Mamoudi Diop xaaji ma mi ngi yóbbante ay nuyoo ak ay ziara di ànd ak ñun ci seen émission Miftahoul Houda Moustapha Ndiaye moom it fa tabarakallahu haj mi ngi ànd ñun ci seen émission Miftahoul Houda Mouhamed Lamine Niang ji fële ca Tivaouane moom it mi ngi ànd ñun émission bi ak Saliou Gassama ñoom ñëpp ñi ngi ànd ak ñun seen émission Oustaz di ko suivre di rafetlu di rafetlu waxtaan wi di mu mel ni rek egsi nañ ci waxtu wi nga xam ni ci lañ war a téléphone yi waaye oustaz ñu gërëm bu baax baax xaji Daouda Ndiaye bu Mawlaay Sëriñ Abdoul Aziz Sall Amin moom it fa tabarakallahu ñu nuyu ko bu baax ziar ko def na nam daan def parce que heure bu ñu tolloo fii war a jokkoo ak ñoom moom dina fexe ba fu ñu mën a nekk ñu ñu ñu ñu am leen kon fa tabarakallahu xaji Daouda ñu nuyu ko bu baax a baax egsi nañ ci fi ñu war a ubbee téléphone yi xar auditeurs yeeg auditrices yi waaye ñu xar leen rek ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ngeen ànd ak seen mbokku daara mu fegg woon Mansour Fall dafa mel ni ku nekk si ligne bi. wa rahmatulah. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xaaj bismillah. yal yàlla nangu ziar. jërëjëf émission bu baax baax. jërëjëf. ziar suñu mbokk bo Alhaji Malick Mbaye bon. Xaaj Malick Xaaj tur ah di rafetlu Mountakha Haj Muntaxa bisimilah. waaw ñu ngi ziar lu bëri di ziare suñu ustaas nag ustaas Pape Makhtar Sylla. di ko wax ne mbokk yëpp ñu ngi sàkku ñaan bu baax a baax. incha allah di ñaanal laa la ñu ci nekk. di ñaanal El Hadj Malick yàlla na yàlla guddal fanam. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla barkeel xam-xamam. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla daf ko mag daf ko magam barke. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. sallallahu alayhi wa sallam. ndax bokk na ci ñu lislaam bi wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na am na solo trop. alhamdulilah. Ah, groupe waaw euh, waa ñu maam Abdou Aziz Dabax ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp. jërëjëf. ñu ngi bàyyi xel émission bi. jërëjëf. dem ñu ko doon suivre di ko de seen biir groupe. ah macha allah la rafet na ndaw ñi jërë ñaanal la oustaz. aha wallaay. ndax gàmmu ren gi boo gisee waa dem sëyee Seydi liggéey bu am solo lañ fa def. ndeysaan. Euh, ñi ngi Ndakaaru fii li leen yàlla dégg nga ñëw ñu si cotiser chaque fin de mois di teg. bu gàmmu jotee ñu togg mberde di ko séddale jaamu yàlla yi fan dajewoon ah macha allah loolu rafet na loolu yëpp ñu ngi ko jëloon seen ma macha allah rafet na ñu ngeen ñaanal leen bu baax a baax a baax yal na yàlla fay leen yiw seen liggéey amin amin incha allah mag ñi lu ci eh, waay laar rek doo ko rëccu waaw waaw amin incha allah yàlla yàlla mootali daal seen yéene amin ya rabbal alamin di sàkk ñaan mbokk yëpp ñu ñaanal leen yàlla jërëjëf xaj Muntaxa daal nga mën di guddi gi nga xam ne moo gën ci guddi nga togg si li nga xam ne joxe ñam ak yiw bu nekk ci joxe ñam lu leen yàlla dénk nag ñoom li ko dajale di ko génn di ko def ci guddi googu waaw lay yaakaar naa ne yàlla dana leen ko fay incha allah jërë jërëjëf da ngeen ñaanal leen baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf xaaj mu taxaw ak papal jimbiraay ak imam abdal ci fall euh, imam masila kan wallahi aha cerno euh, amri rabaan mhm. mam cheikh na tidiane diop mhm. ñuy ziare waa Safin yëpp daal. jërëjëf jërëjëf. waaw yéen ñaanal ak moom ñu baax a baax a baax. incha allah incha allah incha allah. El Hadj Malick. jërëjëf suñu daara. Ah, waaw waaj mi ñu ngi lay ziare lu bëri bëri. jërëjëf mu taxaw di la ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla nga yegg ñu yoon. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla yàlla aaral la boobu sax. amiin yaa rabbal aalamiin. jërëjëf Xaaj Muntaxa moom ñu rafetlu ko wax dëgg yàlla fa tabaarakallahu nee na émission bi ñoom ñu ngi koy jàllalewaat ci waañu maam Abdou yal na yàlla fay leen yiw. am na solo Hadj Malick dafa mel ne am na kenn ku nekk ci ligne bi 88 628 10 95 Hadj Samba Diop ñu nuyu la bu baax yow it ziar la mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Cheikh Mouhamed Mansour. Alhaji Daouda Ndiaye bu sëriñ Abdoul Aziz Sall Amin tey de dafa mel ni sa soppe. waaw. sa oustaz. waaw. moom la ñu dalal tey. waaw tey sama soppe sama xarit sama. dama lay dama lay bàyyi ak xaji Malick. nga bàyyi xaji Malick. alxaaji Daouda Ndiaye. alxaaji Malick kaw kaa sëb Cheikh Malick. bu al amin maa ngi laa nuyu baax a baax. maa ngi lay alxaaji Malick. maa ngi laa ziar itam. di rafetlu émission bu baax a baax a baax. jërëjëf barakallahu fikum. di ci kontaan lool sax. jërëjëf. wax dëgg yàlla yokkal ko suñu fekk rek ci Seydi Hadji Malick jërëjëf jërëjëf Ndiaye. waaye yokkal ko suñu tebi Seydina Cheikh Mouhamed radiyallahu anhu. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. yokkal ko suñu tebi Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. Alxaaji Maalik tey wax dëgg waxtaan bi macha allah macha allah. jërëjëf mhm. tey li nga wax ci maam Cheikh Omar Fouti. Mhm. ak maam Cheikh Alxaaji Maalik. Fouti daal boo boo xool mu dee si Alxaaji Maalik tey. ma ne kon nag papa daan ndax moo am rek. laa mhm. xaloo. la naa si naa wax sallam. mu koy wax. yaakaar ko. ndax moom mu ne wa isaala inni maryama ya banni israila inni rasul ilaykum sadiqan lima bayna yadaya minan tayyibat basni wa mubashirin yaa kii min ba'di ismuhu ahmad wala ma jaatum bil bayyinaati kon moom itam wax na Muhammad dana ñëw wax nag ay itam yeneen ah keneen kuy ñëw beneen anti bi ñëw tudd Muhammad kon yaakaar naa maam si bu waxee lu am Haaji Malick. wallaahi. ni yéen waa. Ah, baarakallah alxaaji Oustaz Xaaji Daouda dagg na xam naa dina dellu siwaat Xaaji Daouda Ndiaye bu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin hmm. waaye ma nuyu sama jigéen bopp di soxna Dial Dia hmm. nekk fële ca géejawaay nekk suñu soppe nekk suñu jigéen nekk suñu mag nekk kuy bëggee ku bëgg lu baax hmm. dafa mel ne am na ko nekk ci ligne bi 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum waaleykum salaam. soxna si bisimilah. xaaj Mansour maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangul ziar bu baax a baax. ma la soxna Der. soxna Nafisatu Der kooku yow yow de xaaj moo tax nga dugg <laughs> dama lay bàyyi ak moom. soxna Der. xaaj malik maa ngi lay ziar. maa la koy delloo lu bëree bëri. ci la ndokkeel bu baax ci àjjuma bi. ñu ngi leen di ndokkeel yéen. ngi rafetlu émission bi.

jàngaat ñu ngi ziar. barakallah. waa kay ñu ziar. jërëjëf jërëjëf soxna. jërëjëf dafa mel ni soxna Nafissatou Der Hadj Malick yaa ko tax a dugg de. soxna na fi auditeur la nag. waaw auditeur la di kenn ci. xaw ma auditrice auditrice di kenn si rajo bi waaye macha allah. dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Haji Daouda ñi nuyuwaat ko bu baax dafa mel ni kooku rëcc na Adama Dramé Oustaz mm-hmm. sa soppe mm-hmm. mbokk salaamaaleykum rëcc na dina jël waat léegi xam naa Adama Dramé sa soppe waaw moom it fa tabarakallah mi ngi ànd ak ñun may sa fay moom it ñu nuyu ko ziar ko dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum mm-hmm. salaamaaleykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أحمد آه، عدنا ديال سؤال حاج مالك أجا فال مباي عبد الله فال ما nga fele ci Italie waye mi nga andek ñun émission bi fatawarakallahu di bégé diko bégé bu baaxa baaxa baax ñi ngi rafetlu waxtaan wi ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoom ñëpp ñi ngi ci internet bi di bëggee li nga xam ne moom nga fi jaar Samba Diop nekk fële ca Pàkk Lambaay dafa mel ne am na ko nekk ci ligne bi 88 628 10 95 ah rëcc na dina dellu siwaat mbokk moomu insha allahu rabbi dafa mel ni dellu si na 88 628 10 95 mbokk salaamaaleykum waaw kay xam naa dina jël si ñu nuyu waa al ajdaat oustaz waa al ajdaat ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun seen émission bi ñoom xaja isa sa soppe boobu xajo Ousseynou li fa tabarakallahu mi ngi ànd ak ñun émission bi soxna Dial Dia moom it ñu nuyu ko waaye nuyu suñu wayjuru bopp di mère Amitine di kenn kuy bégee na Tijani ko nga xam ni yamula wut ak kenn mam Serigne Babacar si radiallahu taala anhu soxna Satu jonn moom it ñu nuyu ko ak mère Matitine moom it ñu nuyu ko ziar ko bu baax Pape Amar Camara mbokk salaamaaleykum waaleykum salaam. ah soxna ah. Kine. bismillah ñu ngi laa ziara baax si. maa ngi delloo ziar. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax a sa soppe la ñu dalal. Hadj Malick sama soppe sama ustaas la ñu dalal. soxna Kine Cissé. bismillah soxna Kine Cissé. Mbaye Mbaye. Cissé na def. ñoo ngi ziar. yéen a ngi am jàmm baax. maa ngi am jàmm bu baax a baax. alhamdulilah. ziar ñëpp. ko delloo lu soppay Pam kii Maxtaar. Pam Maxtaar Sylla Maxtaar Sylla. nestawlu mhm. daal di ziar ñëpp. Mhm. di ziar tam waa kër Oustaz Malick Mbaye. soppay Oustaz Malick Mbaye. waaw jiite ci Brésil Mohamed teg ci sama soppe yi fa nekk ñëpp sang yëpp ñoom Pape Sarr. macha allah kontaan nañ jaar. alhamdulilah di ñaanal mbay yal na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay. amiin yaa rabbal alamin. Ah, ci mission bi nga nekk yal na ci yàlla jàppale ba nga àggale ko ci barke Seydina Muhammad. amiin yombul nag. yoon wi xat na bëri na ay xaaxam wante yal na la yàlla jàppale. amiin yaa rabbal alamin. nga àggale sa ndaw ni yoon. amiin yaa rabbal aalamiin barke sangu sangu yi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam di ziar sëñ oustaz bu baax a baax a baax fa mu nekk mm-hmm. sa maxtaar di ko ñaanal waa si la maxtaar moom it macha allah mm-hmm. lépp mooma moo tax ma xamal nga xamante ni ñëpp wallaay ndeysaan lépp soo feesam macha allah yal na ko yàlla jàppale moom amiin yaa rabbal aalamiin barke sangu sangu yi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ziar ñëpp daal di ñaan ñëpp kontaan nañ ci waxtaan bi macha allah ñoo ngi teewlu ko fa tey jërëjëf jërëjëf yàlla ñu ngi yàlla defal jàmm amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf oustaz kooku sa soppee la. soxna Kiné Cissé soxna Kiné ñu nuyu ko jaare si moom nuyu waa Sam Ndiaye yëpp fa tabaraka ñoom Haji Modou. Mm-hmm. moom it ñu ku lay bëggee la démb rek ñi ngi waxtaan maanaam ko yow la ñu dalal. dafa mbokk mel ni am na ko nekk si la wa waaleykum salaam wa rahmatullah. Haji bisimilah yal na yàlla nangu ziar baax sang. di ziar suñu président Haji Malick Mbaye. alhamdulilah قد وصل خليفه جاي للدربات قد وصل اه خليفه ابو بكر جاي بسم الله منين جاري باخذه اها منين منين جوب درسني خمس ماي ثم صارت قد وصل اها منين بنو فاتت ان شاء الله ان شاء الله وقت المقبضي انت قدر المقبضي يا قدر اها الكلام يدك من يعني في دق دق عتال بس امين يا رب العالمين نورك من فين يعني امين يا رب العالمين incha allah xalifa jarbaatu xaaj Mouhamed Sall président moom nee na nañ ko ñaanal lool rek fa tabarakallahu dañuy jël siwaat jël kooku rek jël siwaat ci xaaj Malick mbokk salaamaaleykum salaamaaleykum ah dafa mel ni rëcc na waaye dina jël siwaat ñu nuyu leen bu baax nuyu soxna Satu nuyu ko Pape Omar Camara moom it ñu nuyu ko bu baax a baax nuyu suñu way bopp bàyyil xaaj Maguette Ndiaye di Haj Malick di kenn ñu nuyu ko ziar ko bu baax ñaanal ko yàlla Mouhamed Lamine Ngom ñu nuyu ko waaye nuyu Baye Maguette ak mboolem waa dépôt ba nga xam ne saa su nekk ñi nga ànd ak ñun seen émission Miftahoul Houda nuyu Modou Fall Ndour nuyu ko bu baax a baax Haj Mam Góor Seen nuyu ko xaj Babacar Sow fële ca Pàkk Lambaay mbokk salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah Haj bismillah ah, na yàlla nangu ziar ba alhamdulilah Moustapha Ndiaye ah mu Moustapha rëcc na du ñàkk dina jël siwaat incha allahu waa waaye dañuy jël siwaat rek ak xaj Malick ci thème bi nga xam ne moom la ñu waxtaanee. xaj ah. Malick ñu jël suñu auditeur wala auditrice bu mujj. jël siwaat nag ci parce que cinq minutes moo ñu def seen mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Mouhamadou Mansour. xaj Daouda. yoo xam ñu ngi jóg dagg dagg bi amul benn solo bismillah. ñu ngi kontaan lool yàlla yàlla bég. alhaji malik mbay moom la a dalal wallaahi seen tur yooyu ñu koy alhaji malik aw kaa sefede haji malik si yàlla xam koy jëfe alhamdulilah yàlla xam koy doxee parce que mi ngi ci ñàkk la wax foofu haji malik si te wallaahi lees damay wax ne lépp lu ñuy wax ci Cheikh Malick Sy ñu ngi wëla ci lu ñu tëdd noonu alxaaji Maari dana xab tànk dana xool dàllam dana ko def la yonte sam waxoon dana ko dox dana ko dox ci tànkam ba ñëpp xam ne dox na ko dana ko wax ba ñëpp xam ne wax na ko moo ko nekk li ci xolam te foofu la mën a yem ndax wax dëgg ci jëf wéere waaye nag wax bu wax rek ak jëf ak taasal ko wax dëgg yoon taal mu doxal jërëjëf te mi ngi jàngale yow dama wax bari nañ pour ñu alhaaji malik ne bii dama ne amul de waaye gisaguñu ko man te allah ndax wax dëgg yaram boo bëgg ndax dëgg jàngal ba ndax dëgg jeex te ndax dëgg ne ku ko xam nag te diine mu maasaal beer mat ndeysaan wax dëgg yaram ñu koy jàngale lépp ñun da koy jàngale jàngale wax ko sa moo xam si mën na ko jàngale loo naqa da nga ko xam te bu jàngale bu beneen bu ñëwee laaj ne fan laa tolloon ndeysaan booy bëgg di pose ay question moom seen naka la di la ko xam ndax ñu si digg déglu ñu ko loolu lay loolu lay bu waxee kenn déglu ñu ko bu waxee kenn déglu ko jàng la aha kon Cheikh Laaji Malick Mbaye awa xasal yaxe Malick Si na lay wax man ya alamin yal na la yàlla sàmm amiin yaa alamin waaye lu gën a ma taab si sama xarit ko nuyu baax di ko ziar moo ak waaye da ngeen foofu ñu nekk Mansour bu ëllëgee yaag alxaaji Malick Mbaye amiin waay yàlla nañu ni ko jaar dem jaar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye duñu fàtte ñaan sama sëriñ ba sama soppe ba mhm. sama xarit ba mhm. sama baay ba mhm. sama maam ja dem kenn ci man ci sëriñ Abdul Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokk leeram amiin ya rabbal alamin amiin ya rabbal alamin xaj ah, daawuda dafa mel ni waaye incha allahu rabbi ñaan yi yal na ko yàlla nangu moom ñaanam fu mu koy daanelee rek mooy Mawlaay Sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amine xaj Malick dañ lay bàyyi rek jëlisiwaat mm, jéggalu auditeurs yeeg auditrices rek ba juma ji di ñëw incha allah waaye ñu bàyyi la nga résumé lu euh, waxtaan wi ñu doon waxtaanee ci fonk gu ñu war a fonkaat mag ñi orma bu ñu war a joxaat mag ñi waaye bàyyi xel gu ñu war a bàyyiwaat xel toppaat sunna mag ñi te ñun su ñu yemee ci téere yi dafa jaalu ñu déglu ñi nga xam ni waxuma la téere yi waaye dañoo romb ci téere yi Hajj Malik fa lañu lay bàyyi rek nga nga nga nga résumé ci 3 eh, minutes 4 incha allahu rabbi ñoo ñaan nag ba ajuma ji di ñëw incha allah tabaarakallahu alxaaji Mansour Fall ñu jaajëfal mbooleem mbokk yooyu doon jaar ci ligne bi mm-hmm. ak ñi sàlloo woon di déglu mm-hmm. ñoo ngi jaajëfal ñëpp Serigne Daouda ndjay Al Amin momu genn mama soxna kinne Cissé. soxna antagnang mi ngi jaar ci téléphone bi di wax ni mi ngi top jotay bi. ak mbokk yi koy topp yëpp duñu lim sen tour mhm. waaye li ñuy teunké jotay bi serigne Mansour aha ku la bayilo sa mam ci ay mam la la jëmee. dégguma de. ku la bayilo sa aha ci mami jambour la la ku la bàyyiloo sa baay ci bàyyi jàmbur la la jëmee ki gën a ñàkk full nag mooy ki nga xam ne dañ lay bàyyiloo sa maam nga bàyyi ko te ki la ko bàyyiloo moom ci maamam la la jëmee nga bàyyi sa maam yow topp maamam moom bu ñu la nee maam Seydi Hadj Malick jàmbaar la woon góorgóorlu na sax waaye nag daa juum maa ngi dégg léegi aadama Dramé di nettali benn mbokk moo xam ni ab suq la woon ci écrit boobu Lac de nekk mhm. mbër moo xam ne ci suq yi la bokkoon wax dëgg suq sax am na njariñ waaye bu yàggul rek la bàyyi làmb léegi ci ñuy gàgganti mam Seydi Hadj Malick la bokk koo xam ne yow ferego iji ci diine waaye itam sak ragal yàlla <laughs> àggu fa sa xam-xam àggu fa sa wilaaya àggu fa bërki démb nga mujjee tekki sa ngemb yow léegi ci ñiy gàgganti maam Seydil Hadji Malick nga bokk xam nga loolu daa xoromu ba dee léegi nag lii saafara lii rek wax naa ko sànq mooy jàngat mag ñi jàngat seen njàngale te tënku ca ñun ñi naan seeni njaboot lañu itam ñu moytandiku di jëfandikoo wala di wax wala di jëf lenn loo xam ne daa wuuteeg na ñuy jël sa loola di ko askanale mag ñi bu gisee Malick Mbaye nag mu naan man njabootu Seydi Hadji Malick la wax loo xam ne maam Seydi Hadji Malick musu koo wax di def loo xam ne maam si Hadj Malick mosu koo def boo koy dal dal ko en tant que Malick Mbaye waaye bu ko ni sa maam Seydi Hadj Malick moo la ko jàngal bu ko ni sa maam Seydi Hadj Malick moo la ca yare te loolu itam dañ koy gis ci terrain bi mu bare lool gis ku échappé am loolu def na ko wala mu wax ko ci lu ñaaw nga jël ko romb ko fi moom ni ko jëf wiir ko mag ma muy askanale boppam te loola bu doon noonu la ñuy doxalee kon lenn lislaam sax dootu fi jag ndax ñi ëpp tey ci njabooti lislaam ñooy jëfandikoo yi nga xam ne ñoom la lislaam doon tere xanaa dooni loolu la lislaam doon jàngale moom kay boo koy naqarlu naqarlu ko moom mii moo ko def waaye du lu ko lislaam jàngal bu kasaalika itam ñun njabooti mag ñi ña cey def ak di wax loo xam ne njuumte la wute nag njàngalem yonent bi sallallahu alayhi law dalal Malick Mbaye ma koy def rek waaye bul ko jiiñ maam Seydil Xaaji Malick mi nga xam ni mooy magam ñu jàngalaat suñuy njaboot suñuy mag tënkuwaat ci seen i njàngale maam Sidi Hadj Malick kenn la ca maam Borom Touba kenn la ca maam Seexul Hadj Omar kenn la ca loolu laay woowaat sama bopp di ko dénkaat sama njaboot di ko dénk mboolem koo xam ne yàlla dénk na la njaboot ku mel ne Hadj da Ndiaye ku mel ne Mama Kine Cissé mii la ngay wax ba weddi loo leen maam Sidi Hadj Malick daa ko seetaat waaye ñoom seen njaboot li maam Kiné Cissé mii am ci maam Serigne Babacar Sy Abdoulaye Ndiaye mii Daouda Ndiaye mii am ko ci Serigne Amin amaana seen doom duñ ko am su boobaa kon weddi loo leen mag lu leen di yombalee doon yàlla nañ ci yàlla musal Xaaji Mansour wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla yàlla musal jërëjëf Xaaji Malick jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi àndoon nañu seen émission Miftaahul